baaxoo di seetaan TMS TV ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay macha allah gis ngeen jinne bii di toog. dafa dugg daal di affronter ki nga xam ne mooy xalif général nee na da koy rey waaye nag ñun loolu jombaluñu ndax lu bees neex sëf bàmmeel ndax yàgg nañ ko fi gis. jinne yi fiy dugg si ak doole jinne yi fiy dugg si ak xadar xalif général leen nekkul sama tànk lu dul damay ñëw pour rey la damaa ñëw pour rey la loolu jinne bi wax pour rey ki nga xam ne ne mooy l'empereur le xalif général des jinne jinne baa ngi noonu nee na daal tey loolu moo ko fi indi jël na loxo bi teg ci baat bi nee na day rey ki nga xam ne moom mooy la xalif général des jinne l'empereur kon nag jinne li ma lay xamal mooy nga def attention ndax fii jinne bu fi yaroo dañ koy daan daan bu rafet jinne bu fi yarawul dañ koy daan daan bu ñaaw ndax ni lay demee ci saa su ne gis nañ ñu fi jaaroon la daaru jaar na fi première ambassade jaar na fi macha allah maam Kumba Bang jaar na fi macha allah jinne yu mag yëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci àdduna bi surtout sayaatin yi jaar nañ fi te buñ fi jaaree ala Thierno Moule Sow da leen wàccee ba zéro à la base. kon nag kon jinne bi nee na day rey ki nga xam ne moom mooy alaaji Thierno Moule Sow kun fayakun les macha allah le king of the king le maréchal le brodé de mën nag macha allah kon yaakaar naa ne kii yaramam day xasan géel ndax ku jàkkaarloo ki nga xam ne ne moo wàccee le roi xaaxaa jinne bi daanal bateau la Joola wàccee jinne bi xam ne moo daanal bateau Titanic macha allah bu ñëwee naan day rey ki nga xam ne mooy allah Thierno Moule Sow wàccee Ninki Nanka wàccee Badir wàccee Guldekum wàccee Mahfouz wàccee keneen ak keneen yeneen yeneeni jinne Zamziza ñoom kabla kabla jinne yu mag yooyu ay ñoom jinne Moussa macha allah kon nag jinne bi yaakaar naa ne yaramam day xasan jël doyen. Merci beaucoup Ngoné, merci Moustapha. Nous sommes en direct dans le cabinet médical du grand marabout qui en face d'un esprit qui, pour le moment, avait déjà proféré des menaces à l'endroit du marabout, des menaces de mort. Pour le moment, elle est là, assise. Mais ce qui est paradoxal, Mustapha, elle ne veut pas encore lever la tête pour regarder en face le marabout. Et moi, je suis sûr, si vous avez la force de défier une personne, en l'occurrence un grand marabout, vous devez avoir la force de regarder ce marabout en face, les yeux, dans les yeux. Mais pour le moment donné, ce n'est pas le cas parce que c'est avec un regard baissé qu'elle est là assise, en train de penser, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de penser pour le moment, mais dans quelques instants, nous allons suivre de très près sa réaction Moustapha. waaw jërëjëf euh, Abdou Aziz jërëjëf euh, Ngone kon defe naa ni euh, dañuy bàyyi Alseyni ak waa kër xale bu jigéen bi ñu def signature de contrat Alseyni. maanaam comme que déggul déggul français déggul wolof ñu làkk ko si pulaar rek moom noonu presque ñoom ay taalibe lañu quoi benn taalibe sëriñ bi moo ko yebal bu bokk si association donc sëriñ aussi faj na nja seen yu bari moo ko fii donc léegi ñu contrat bi maanaam lu nekk si contrat bi maanaam képp ku fi ñëw na am ku mu àndal indaale daara goto kala ara addoro carte d'identité mum waaw ari ha ko damal sécurité ɓe visita bagage ma ɓe daara tawi ma ala joguita ko gañata sa naati ko nder galle sa respecte ko tawɗa gako mm-hmm. donc sa ari ɓe haaɗi kadi ga gorko e debbo jagaso nder galle ga donc sa ari o ƴewante so o ƴewanima noon ha o andi ko wonema mm-hmm. euh, mm-hmm. o haalnima après yewda e makko fi safragol ngol fi findingol on ɗiɗo ara on famodiri a signa o signa kala mani ko yeddema ha famodirɗon inchallah o waɗay ko makko kon ha ko wimakom respecta ko wima kon kadi ha timma simo safurde ma noon so tawi ma allah ha yanowo ɗum haray ko filmete kala ko kala ko yeyi noon ha filma ko witti punate tiktok facebook ka réseau sociaux ji ɗin fof donc euh, naafo yanata noon no woodi heewɓe kadi ɓe annda hoore ma ɓe mari jinna walla ñanene jokkiɓe walla ligguey goɗɗum go tawa ɓe yanata donc ɓen ɗon kadi o safora ɓe ha ɓe sella inchallahu donc kalismata o noon adeppadudama so tawima ala ari ha jonni ɗum ɗon ala immi ka yoɓe jonnita donc on kalis ton ɗen e ceerno e, waɗirta sadakaji fi mo adduɗa o ko on kadi o sodata lekkele e ko nande mum donc ara eɓe haɗa ga kadi mana aro ga fima cigarette walla yara beere walla e, fima alcool non fo aray e ko haɗa ko donc no haɗa ga kadi mana goɗɗo ara no sonka walla no piira wallanno yennindira e woɓɓe goo walla no haala haala dow fi dérange gol hedditiɓe ɗum ɗon fof aray ko haɗa donc so heyino ha addi nawnuɗoma donc a addimo ko ceerno fi yo safurmo hara yana disposition ma woni ko wata waɗande nawnuɗoma o il faut que disodira e ceerno par ce que ala droit mo ndiyam walla boisson walla yenen lekkele fi yo mem tant que ceerno jonnalma orde donc so tawi malla noon o safurima ha selli haye duuɓi hewɗi noonaaɗo goo heeɓima so arti gaɗen kadi ara a watta e consultation keso yewtida e makko inchallah donc haray ɗum ɗo woni l' essentiel on quoi hmm, ko heddi kon après inchallah baxna kono alseyni ifena ñu joxo mu signé hmm? ñu signé comme nu ñu koy faral di defee fii ci kër le xalif général euh, patient bu fi ñëw rek balaa ngaa jëflante ak sëriñ bi il faut nga il faut nga hmm? il faut nga il faut nga il faut nga il nga signer contrat parce que kër gi noonu lay demee euh, kër gi dafa am règlement intérieur donc fii lépp day leer et lépp dañ ko teg ci yoon moo tax Euh, bëgg patients yi aussi ñëw ci jàmm ak salaam dem ci jàmm ak salaam et puis li leen tax a jóg également buñ ñëwee mu saafarawu moo tax saa su ne ngeen gis patients yi fu ne la ñuy jógee ci àdduna bi bu ñu ñëwee def témoignage sant sëriñ bi gërëm sëriñ bi sur la TMS yi ngeen koy seetaan loolu nag defe naa ni yombul <clears throat> day nekk euh, ki nga xam ni yàlla li mu la may ci wàllu médecine traditionnelle yow rek la ko yàlla may ci ko suuf kon ngeen gis ni sëriñ bi moom mooy signé noonu ginnaaw bi patiente bi. signé ci côté boole sëriñ bi mooy signé ma ànd ci caméra bi tey nag di Youssou kon gis ngeen signé noonu ñëw ba pare Alseyni moo yoroon document yi kon defe naa ni sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay di am mbégte di ànd ak yow sur la TMS TV. waaw macha allah ñoo ngi sant suñu borom bu baax di julli ci yonente bi salaa salaam defe naa ne c'est pas la première fois ngeen gis ñuy def contrat bi di signer lépp dañuy fàttali nit ñi rek kër gi dafa dafa am règlement ba képp ku ñëw macha allah ni ñuy doxee mooy dañuy def contrat pour faj la macha allah ñaari façon contrat moo am am na bu ñuy filmer am na bu ñu dul filmer bii nag dañuy filmer moo waral ñu def contrat euh, macha allah suma benn taalibe moo leen yebal fii Kalidou Sokom am indi na fi ay njabootam ñu defal leen ñaan ñu am jàmm. yàgg na fi yabal ay nit moo yabal ñii fii defe naa ne barki Dembo Njaay gis ngeen xale bu jigéen bi doon yëngal ci biti léegi nag addiya bi ñu waxante woon moom la ñu indi macha allah pour ñu def ñaan parce que nag xam nga dañuy def ay sarax dañuy jënd ay nag dañuy def yu ne dépense yi bari na macha allah léegi nag addiya bi la indi gis ngeen jinne baa ngi ma tëkku naan ma ni dama lay rey gis ngeen ko muy def ay affaire di naan daf may rey waaw ah. <laughs> waaw di dóor di dóor euh, ngoone di di xeelu ay doyen léegi nag ñu xool ba xam fan laay mujjee ak moom ndax nag xale bu jigéen bi yaayam nee na nit ku intelligent la dafa mën na jàng premier rek lay jël mais instant bi nii jinne bi da koy ruube di ko sonal di ko yàqal waaye dinañ ci xam dara léegi léegi macha allah léegi nag addiya bi la indi macha allah li ñuy waxante mooy xaalis bi moom la indi. addiya bi moom moom la ñu teel daawuñu ko wane waaye boo gisee léegi ñu wane rek nit ñi gën a xam mbir mi <laughs> waaw addiya bi moo nekk ni macha allah daawuñu ko wane mais sénégalais dafa bëgg preuve dafa bëgg lu leer <laughs> loolu moo waral ñuy wone mbir yi di xam ne ñi ñëw fii macha allah dañuy indi addiya dañuy fay pour ñu faj leen parce que jinne yombul génne jinne yombul génne te jinne neexul dundal ndax boo ko teree mu lekk nit boo ko teree mu naan deretu nit saxaa foofu war di rey ay nag ay xar ay bëy ay giléem macha allah di rey ay ginaar parce que ñoom loolu lañu ñu loolu la ñuy dundee boo leen teree lekk nit war nga leen jox ndawal loolu moo waral nag gis nga saa su ne ñuy jënd ay nag yu cher di jënd ay ginaar di jënd ay bëy ay xar di ko rendi fii macha allah ñoom ñu ci jariñu ñun ñu ci jariñu doomu aadama yi di ci jëriñu macha allah adiya baa ngi noonu defe naa ne moo ngi ni macha allah lii nag du dara parce que lii mënuñu fay coono bi ñuy daj te mboolem lu nekk ci moom dañ koy génnee ba mu set te ñenn ñi dañuy ñëw fii yor usine Guinée da ngay génnee di génnee ba sonn doo sonn doo taay saa yu ñëwee nga rocc nit ki am jàmm kon lii du dara nit ki da li maanaam lim ñu fay da koy lekkat ndax bu ñëwee ci kër gi du jënd añ du jënd reer du jënd ndékki maanaam lépp day mat dara du manqué yaa ngi mel ni ku nekk sa kër dara du dara du manqué macha allah kon nag lépp lu ñu mën a jox rek day delluwaat ci jàmm yàlla yi loolu tamit foog nit ñi xam loolu lépp luñ ñu jox rek day delluwaat ci nit ñi ndax xam ngeen ne damaa bëri fere kër gi dama bari dépense li may dépense fii chaque weer ay millions lay génne di jënd dund macha allah location bi gis nga rek 800000 la courant bi amul limite ndox mi amul limite macha allah kon lépp lu ñu joxaat rek day delluwaat ci jaam ñi waaye day baax ñu communiquer pour nit ñi xam ko macha allah pour nit ñi gis mbir yi. du noonu. waaw que le marabout vient de faire à l'endroit euh, de ce que les gens amènent, de ce que les gens leur remettent en compensation. Parce que quand même, soigner une personne, permettre à une personne de retrouver en tout cas toute sa plénitude, permettre à une personne de retrouver en tout cas euh, son état de santé physique et mentale, il n'y a pas de prix à payer pour cela. Et le marabout a été aussi très clair Vous avez vu les conditions dans lesquelles les patients sont traités. Allez-y dans les hôpitaux modernes. Il n'y a aucun hôpital au monde, je dis bien, qui reçoit des patients sur des fauteuils Il n'y a aucun hôpital au monde qui demande aux gens de venir manger sans payer de l'argent. Il n'existe qu'ici, au domicile, à la résidence, sinon à la clinique de El C'est vrai aussi, vous l'avez dit, et c'est un constat. les charges sont énormes. D'abord, vous avez un personnel constitué de la sécurité. Vous avez un personnel constitué, en tout cas, des professionnels de la communication. Et quand je parle de professionnels de la communication, c'est les caméramans, c'est les techniciens, les monteurs, les journalistes, mais aussi un matériel que vous avez acheté de dernière génération. Plus le véhicule encore que vous avez mis à la disposition. Voilà. voilà voilà donc vous avez vu aussi ce qui voilà jinne yi vraiment c'est des destructeurs parce qu'il veut pas être filmé aussi di xotti ay yére affaire yu noonu donc loolu yëpp gis nañ ko mais charge yi bari charge yi métti mais nag yàlla suñu borom moom moo la téyel boppam tey wax nañ ko filmé nañ ko nit ñi gis nañ ko weeru koor weer la juróom-ñeent euh, euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala fanweeri fan fanweeri fan yooyu yëpp ñaata jaamu yàlla nga jox ñu doog fanweeri fan yooyu ñaata jaamu yàlla nga ci jox ceeb jox leen diwlin jox leen suukar jox leen meew jox leen tàndarma ñaata lañ kenn xamul lu toll nga teg ci leeratul xadar wàcce juróom-ñaar fukki kaamil yoo xam ne jàng nañ ko ci guddi googu nit ñi xayma ko laa wax bu ñu wax ñaata ñu xayma ko ci juróom ñaar fukki million yoo xam ne génne ko ko defe naa ne loolu du liggéey benn bés du liggéey ñaari fan du liggéey ñetti fan ay liggéey liggéey moom nga dajale delluwaat ko jaam jaam yàlla yi kon donc ñu lay parce que dama wax ne tey lekk gi bu la neexoon nga jaay ko bu la neexoon nga benn restaurant teg ko fii ci dugg bi ne ku bëgg a lekk demal fay foofu mais fii da ngay dëkki ba suur da ngay añ ba suur da ngay reer ba suur jërëjëf Sow muy dem bu nous ah. revenons à. defe naa leer na nañ. l' aspect. Hmm. à l' aspect qui nous ici. à à cette situation. et tout à l'heure je disais dans le commentaire. que cette dame qui est possédée par un esprit. alors l' esprit est en face du marabout. mais dès qu'elle est rentrée elle a proféré des menaces de mort. Alors je ne sais pas si elle va exécuter les menaces de mort ou pas, mais nous verrons tout à l'heure comment ça va se le marabout. jërëjëf euh, Abdou Aziz jërëjëf euh, soxna Ngone defe naa ni li ngeen wax lu am solo la waaye gis nga léegi euh, sëriñ baa ngi koy def le contact des yeux mi ngi def sëriñ bi nii waaye nag lii defe naa ni lu bees ci kër gi du. ku yàgg kër Thierno Moule Sow xam nga ni lii du lu bees saa su ne jinne ñëw tëkku ko waaye yàgg-yàgg jinne bi ci suuf rek kon defe naa ni euh, ci kanam dinañ xam euh, lu waay doon jaay rek dana lamb fii ci le xalif kër xalif général di Alaaji Thierno Moule Sow di euh, le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king kon defe naa ni ba léegi yéen ñu suivre sur la TMS TV à 22h passé de 40 minutes euh, ñu ngi fii ci Cambérène un terrain jamono en face euh, géej gi. na loo wax xanaa mënoo wax. loo wax. bay sama nay. damaa nay. jinne bi nee fu ma jëndee sama dàll yi dàll yi jënduma ko suma benn taalibe bu nekk eh, Angleterre fa Bakary Sonko moo dajale yi dàll dàll yi nekk Angleterre yëpp la dajale yónnee ma ko UK te nee na ma sëriñ bi pareegu ma maa ngi dajalewaat ay dàll dinaa préparer ay dàll pour prince dinaa préparer ay dàll pour pour euh, Ajaratu Mariama Kamara pour la reine. waaw mais kii dafa ñëw di ma xas walla ñëw bii nag ñëw bii jasineer la. tey laa lay xas yow. Ah. waaw. mbokk yi jommi woo leen tey moom nee na daf may xas kii jasineer la gold. def ñaari baat. kii 5 mètres moo koy ñëw 6 mètres. lii 6 mètres moo koy ñëw ñaari yére la 6 mètres moo koy ñëw jasineer la ba pare ma teg ci benn ceenu or def ci allahu xam nga man duma takk ceen waaye allahu moom dama koy takk man du ma ceen waaye allahu moom dama koy def seen takk ko ndax bëgg suñu borom lii or la ceen bi or la waaw allahu man dama bëgg yàlla moo tax xam nga ne man duma ma tàkkkatu chaîne waaye bëgg suñu borom moo tax kii moom dafa dugg néeg bi di xase daal lool sama gërëfaas bi kii hmm. eh, yow la kan. mënoo xam yow. lu tax mënuma la xam. maa la loo maa la large te maa la ëpp doole. Hmm? Hmm. Hmm. yaat ma nee na. nee moo la large waaw moo ma loo moo ma large. xaw bi laa lay xaw ma yaa ngi sa bopp bàmmeel lu toll ne xalif général des jinne wàccee Mahfouz le jin le plus long du monde. Mhm. le jin le plus large du monde. Mhm. ko dox ci kawam ci kawam wàccee maam Yande wàccee yeneen jinne wàccee Guldekum oh yaa sa sa bopp bàmmeel yow. déglu ko sax macha allah le jin le plus long du première maam Numbur Yaata wàccee ko moom moo nekkoon mamel di soppaleeku uh, nag. di soppaleeku waaw di jommal gaay xalif général moo ko wàccee Mboose Kumba jigéen. Mboose Kumba jigéen moo ko wàccee. defe naa ne Mbay moo ko wàccee. ñëw na ñëw na jébbalu ba pare yëkkati dara jox ma. jinne bi dafa yëkkati dara jox ma maa ko denc ba tey. mu ne ma sëriñ bi lii dencal li maa la jox lii maa ngi ci sa tànk saa su ne maa ngi ci ànd ak yow. macha allah loolu dafa fort. mu ne ma sëriñ yi bari ñoo ngi wirdu pour ma nekk ak ñoom mais. dañu bon mais yow ku baax nga. man maa ñëwal sama bopp. kooku mooy mbar mbar boose. Mhm, mbar boose Kaolack. macha allah gis ngeen fi ma jaar ak Axuda Shakir Mamadou Aliou Sow. Oh, xeex ak moom xeex ak moom xeex ak moom. xeex bu metti mu ne ma musul musul wàcce àdduna. Mhm. dégg na Thierno Moule Thierno Moule. gis nga fi ma jaar ak moom gis ngeen euh, ah. quatrième siècle la nekkoon. Mhm. macha allah gis nga ni ma jëflante ak moom gis ngeen tamit Mouhamadul Moustapha ki nga xamante ne Égypte la wàcc. Mm-hmm. defe naa ne macha allah mu ne ma Thierno Moule Sow damaa ñëw pour jébbalu gis ngeen euh, Jean Moule jinne bi nga xamante ne dama xeex ak moom duma ko duma yu metti mm-hmm. mu ne ma waay yow sonal nga mu tuur xewal ma tuur xewal Jean Moule kon du yow Badir fii la jaar mm-hmm. macha allah max maxfuus fii la jaar Buldakum fii la jaar lëg daaru fii la jaar macha allah en même temps jinne bi doon ànd ak yontu yàlla Muhammad salaa salaam moom mooy oh. Hamza Moule Hamza Moule sama taalibe la fii la nekk borom jaas ki daan ànd ak Rasulullah sallallahu alayhi wa euh, fii la nekk jinne jinne yi gën a mag ci àdduna bi yëpp daanaka ñoo ngi sama peg mm-hmm. ninki nanka waaw ninki nanka fii la jaar mm-hmm. dragon fii la ne kan Kanka fii la ne mm-hmm. man jinne yi gën a mag ci àdduna bi ñoo ngi sama loxo mhm. rawatina nag nga ne danga maa loon danga maa large waaye tey nag danaa la jommil tey lañ lay wàccee ba zéro à la base macha allah gis ngeen xalif général te buñ ko doon liim sax fii la ñuy yem parce que duñ dañ fiy fanaan parce que ay milliards de jinne mhm. Ronaldo fii la ne Chris kooku maa ngi ko jàppee woon inter 19 macha allah ak jinne yu bari yi nga tuddee Macky Sall tuddee Ablaye Wade tuddee ñëpp responsable yi ci réew mi lépp tuddee nga leen jinne kon buñ ko dee liim fii la ñuy fanaan kon nag saa waay Barack Obama ngi fi ñëpp président Amérique bi ku ku soxor ki nu mu tuddati waay Donald Trump Donald Trump defe naa am na fi turandoo même wala kaana bi Emmanuel Macron wala kaana bi wala kaana bi sax tuddee nañ ko jinne tey parce que dama ko ñaanaloon yàlla na torox mhm. ndax dafa jógoon di saaga yonte yàlla Muhammad mhm. di ko maanaam di ko humilier loolu mooy mhm. humilier di ko kirata di wax ay wax yi mais defe naa ne mm, askanam ñoo ko toroxal dafa ñëw askanam di ko yuuxoo tëgg ko mbéj jamais vu kon xam nga ne kenn du yonte yàlla Muhammad kenn du benn borom barrière or bi waaw loolu du dara gisagul dara yonte yàlla Muhammad ku ko foowee foowee sa bopp en tant que président mm-hmm. nga daw ba sa askan ñu ne tar mbéj xam nga ne loolu <laughs> lu yéeme la loolu humiliation mënul weesu loolu kooku digg na ne batalu ah? joola torox mënul weesu loolu ko humilier waaw kon nag man xejuma ci yow waaw waaw kon nag dégg nga li la xalif général wax fii nag jinne day nangu ñu daan la daan eh. bu rafet boo nanguwul nag mooy loolu yow la kan yow la Vous êtes qui, vous C'est le Khalif général des Guinée. King of the all the king. Le roi du monde, le roi des djinns. C'est moi. comment tu t'appelles What's your name Yaoula Khan, hombo. What are you talking Quoi What are You are talking for me? xaaral ma woo Saliou mu ñëw. hey eh, noo tudd. bari na ay tuur de. bari nga ay tuur wax ma sa tuur yi ma xam. yow la kan du benn man yow ñaata nga. construire na cinq. nga ne. du cinq de dama tabax sama kër. waaw cinq étages la. waaw chaque appartement am na quatre néeg benn waay ak salon ak toilette. sa appartement bi foo ko tabax. ci dënn xale bi. waaw mbokk yi nee na dafa tabax cinq étages cinq étages xam ngeen nu muy toll. R plus cinq. nee na moom la tabax ci dënn xale bi mbokk yi xam ngeen chaque jour ma wax ko fi nee naa leen jinne yi dañuy tabax fan nga tabax nga ne ci ci ci dënn bi. waaw lu tax nga tabax loolu ci dënn bi. dama kaa bëgg sonal. da ko bëgg a sonal lu tax nga bëgg a sonal xale bu jigéen bi. dafa bëgg jàng. mais dégg naa xale bi c'est un bon élève. il intelligent. lu tax nga bëgg ko sonal. yàgg naa depuis bu muy xale. depuis ñaata at. xale. xale comme comme ñaata âge. yooyu. 4 fan nga ko toppe ak fan nga ko duggee. Congo. Congo. Congo la nekkoon. Congo. wala Congo. Kinshasa. waaw Congo Pont Noir Pointe Noire kon yow jinne congolais nga defe naa ne c'est pas première fois ma jàpp jinne congolais jàppoon naa fi benn jinne congolais mu mu may làkkal ay zugo zugo zugaza damay fàtte tur bi xaw ma zugo zugaza xaw ma nan la tudd maa ngi ko jàppe woon ci jabaru kooku joge eh, Espagne damay fa zugu xaw ma nan jinne bi zugulu Diop jàpp na tur bi zugulu waaw defe naa ne c'est pas la première fois ma jàpp jinne congolais waaw zugulu kooku defe naa ne congolais la comme yow léegi xale bi depuis mu amee ñaataat nga ko topp nga ne. 4 ans 4 ans lu tax nga topp xale bu jigéen bi. dama kaa bàyyoon rek ma koy yar. danka def ma ko woon dara. defoo ko woon dara. waaw dama kaa bàyyoon mu jàng. waaw. am naa élève la. élève bu baax la. mun na triplé jaari soo mais maa ko jàppee. moom nu mu tudd. xale bu jigéen nu mu tudd. bëri na ay tur ay sata kumba wala Aminata Ndiaye. aha léegi yow ban melukaan nga yor. serpent. serpent jaan nga. gaynde. xaj. xaj. bari de. ak lan. bari na. serpent jaan xaj ak lan. gaynde njaay. ak lan. mënuma bi il est waaye je vais régler tout de suite ça. il est mais on va tout suite. <laughs> tu ma connais ah, je vous connais. tu connais le khalife général des djinns oui, je vous <laughs> yaa ngi commencé taa. lu tax nga yebal ko fi. danga bëgg xeex ak xeex ak man. en kabat. en kabat. ay hmm. eh, dara da. umma. nga ne. du nee na day xeex ak man. nee na moo yebal xale bi pour xeex ak man. mbokk yéen a ngi gis jinne bi nee na dafay maa nee na dafa yebal xale bi pour xeex ak man tey nag dina xeex ba dugg boîte vocale tey dina xeex ba yëg ci asamaan nga ne ko lu loo ko tere ah, dafa demoon def concours Miss mathématique quatrième Miss mathématique waaw ma koy triplé waaw di paniqué. waaw woon sax bind ma ko mu def ay BFM BFM troisième. waaw 2018. waaw ma waroon ñëw premier di centre. deuxième. waaw. mu ñëw ay vingt et unième du centre. ah meilleur la maa ko def. moom meilleur élève la. waaw après BFM la ñëw fii ci Dakar. waaw pour def série STEC G. waaw. ma mu commencé deux mois. deux mois. waaw prof espagnol bi nee dafay def concours général. waaw waaw ak yeneen prof. Mhm. foofu laa ko daanelee mu ñibbi mu perte année bi. yaa ko daaneel fan ci école bi. waaw lu tax nga daaneel ko. groupe scolaire Seydou Nourou Tall bu Pikine. foofu la doon jàng. maa ko yàqal. yaa ko yàqal. waaw année boobu mu perde ko. waaw mu bugg def S. ma bañ ñu yóbbu ko L waaw. après def na seconde waaw. def na seconde waaw. mu jël premier. mu jël parce que mhm. dama koy bàyyi rek. mu ah. jàng. Mhm. après su ma gisee mu jël premier. Ah. man neexuma daal. Ah, yow daal xolu kiñaan moo lay jàpp daal parfois nga yàqal. yow ku soxor nga. waaw hmm. man soxor naa de. bon nga soxor nga. waaw waaw. defe naa ne Moussa Fall dégg ngeen ko ngoone doyen ren ren premier compo rek la def. première compo rek. waaw L2 la waroon dem. L2. ba nan moom. au fil di deux semaines bii moom yow bii moom yow. waxal wolof. na dem L prime. L prime mu dem L prime. waaw mais deful deuxième semestre. deful te deuxième semestre lay dem bac du def bac de. lu tax. bugguma. xam nga yow ñàkk nga de ba nga duggee sama kër nga ñàkk ren dana. Eh, dana def kii maa ko yar. yaa ko yar waaye bu soobee yàlla nga ne. invité naa foofu ay sept yu bëri. ay sept invité nga ay lan. sept ans. aha. waaw bëri de am na gabonaise am na Kouthia Sow sax. Kouthia. Kouthia Sow. Kouthia Sow. loolu jinne la. kooku de xanaa sama doom baay la Sow la sant. Kouthia soow Kouthia Sow am na de. ah dafa am jinne buy def comédie. kooku oh, xanaa moom mooy moom mooy première Kouthia xanaa Kouthia bee mooy deuxième. waaw ñoo ngi nuyu Kouthia suñu suñu suñu xarit la macha allah ñoo ngi koy nuyu. ah am nga fi turandoo de jinne bee de nee na xaw ma sow la tudd. kooku comédien la. jinne boobu comédien la. xanaa kay Kouthia bu gisee Kouthia bi sow bi kay ah. comédien dina gën a dina gën a dox ah. waaw. ah jinne boobu tamit yaa ko indi. jinne boobu day def comédie. mbir yi dafa xaw a méngoo de. Hmm? waaw hmm, xale bi bëggoo mu tàkk du génn du wax du lekk. génn du wax du lekk. kan moo ko tere loolu. yow. may ah yow yaay chef bi. mais ñëw nga ci kër xalif général ñëw nga ci kër seefu seef yi du xam nga loolu. ah. nee na nee on verra tout suite. mais yow nga ne danga may rend da nga ñëw sama kër di ma def menace de mort. man danga may rendi man. man yow munoo munoo ma rendi man tuuti nga pour rendi ma man. ñi la mag sut la fii la ñu jaar yow tuuti nga pour rendi ma. tu es petit devant moi. du ma ko riir ti ma yekkal yow. tu me fais rire tu tu minimiser. je veux désester la désester yow aujourd'hui je veux te di nga bàyyi xale bu jigéen bi ci nii wala ci naa bàyyi force di ko bàyyi voilà kaana noo tudd yow he noo tudd noo tudd bismilla bismilla jinna monoo ko bi toloo teegee talaa teegee allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndeñjidi kidon korjinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu xam ngeen ne jinna yaa ngi cibiti di ma dégg wonande allah saginande allah hulu allah samad alfayu jayri alfayu batino korjinna so jinna olde ko royanna nabiyanna nabi duree dureete soojinna so soojinna kiisikasa koye kaasi kiisikasa koye kaasi kiisikasa koye kaasi samsi samaruushi jilla samsi samaruushi samsi samaruushi samsi samaruushi samsi samaruushi samsi samaruushi samaruushi samaruushi samaruushi samaruushi samaruushi samaruushi samaruushi samaruushi jinna samaruushi samaruushi samaruushi monokobe tolotege talatege allahn kantan annabi kantan ley udde dow udde hakkunde nden jidi kidon ko jinna mono ko be tolo tege tala tege uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidon ko jinna mono ko be jinna atake approché jinna jinna songolen ko jinayi songolen ma haɓɓe mo jinna nangue mo haɓɓe mo nangue mo baɗir mule baɗir mule baɗir mule baɗir mule baɗir mule baɗir mule baɗir mule baɗir mule jinna atake atake jinna haɓɓe mo jinna yewallen makko yewallen makko yewallen makko yewallen makko jinna Badir Moule Badir Moule Badir Moule Badir Moule Hamza Moule Hamza Moule Hamza Moule Hamza Moule Hamza Moule Hamza Moule Jinna Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Moule Hamza Moule Hamza Moule Hamza Moule Hamza Moule Hamza Moule Hamza Moule Hamza Moule Jinna ataa kee Jinna haɓɓee moo Jinna yewalen ma ko yeewal leen ma ko jinna rayal leen ma loxo yi rayal leen ma loxo yi rayal leen ma loxo yi jinna rayal leen ma loxo yi rayal leen ma loxo yi lakkal leen ma loxo yi lakkal leen ma loxo yi lakkal leen ma loxo yi jinna lakkal leen ma loxo yi lakkal leen ma loxo yi lakkal leen ma loxo yi jinna lakkal leen ma loxo yi lakkal leen ma ko maasal leen ma ko courant maas courant jinna maas maas maas maas courant maas maas maas maas maas jinna xojal leen ma ko xojal leen ma ko jinna xoj ñaar loxo yi ci baat bi ñaar loxo yi ci baat bi ñaar loxo yi ci baat bi jinna xoj xoj ba mu wàcc xoj ba mu jaaxal xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj Jean Moulé Jean Moulé xoj ji na xoj xoj xojal ma ko xoj xoj xojal ma ko ji na xoj xoj ba mu wàcc suuf xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj ba mu yuuxu tant que yuuxul bu leen ko bàyyi ji na xojal leen ma ko ngeen dumal ma ko mu ñëwaat sololaat ma sama dàll dàll bi la summi dana ko dana ma ko sololaat force ji na xoj xoj xoj xoj xoj ji na xoj xoj xoj xoj xoj xojji na xoj xoj xoj bu baax xoj xoj torturé xojji na xoj xoj bu mu nooy bu mu nooy fàttaleen nooy bi fàttaleen nooy bi bu mu nooyeeti bu mu nooyee xoj leen ko xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj ba mu wàccu xoj ba mu wàccu tànka wàccuwul bu leen ko bàyyee xoj ba mu wàccu jina xoj xoj Hamza xam sa Moule jinne boobu moo doon ànd ak yonte yàlla mu Muhammad xam ngeen ne ko ku am kattan la dama bëgg nga xojal ma ko ba mu wàccu Hamza jina xoj xam nga Hamza mule Hamza mule xam jina xoj xoj xam xoj xoj xoj xoj jina xoj Hamza mule Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza mule Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza mule jina Hamza xoj ko nga wëra nga wëral ak moom xoj ko nga bërëmu ak moom Hamza xoj mbokk yi xam ngeen jinne boobu ku am doole la ku am kattan la moo doon ànd ak yonte yàlla Muhammad maa ngi ko génne woon ndeysaan ci jabaru suñu benn xarit mooy Thierno Sow ku ñàkk ki ñaan la sëriñ la waaye mu ne ma Thierno li la yàlla jox jox ko kenn sama jabar a ngeen ni fajal ma ko nga génne jinne yi kon maa ngi nuyu Thierno Sow di nuyu soxnaam di nuyu njabootam jina xoj xam sa mule xam sa mule xam sa mule jine bi daf maa summi samay dàll dana ñëw sololaat ma dàll yi force jina xoj xam sa prince prince prince xam sa xam sa xam sa xam sa xam sa xam sa xoj gina xoj xoj bërëngu xot bës xoj xoj tànk yuuxul bul bàyyi xam sa xoj xoj xoj xoj xoj xam sa mule xoj xoj jina xoj xoj forcé forcé jina séeré forcé forcé forcé forcé jina xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj tànk wàccuwul bul bàyyi tànk wàccuwul bul bàyyi jina xoj xoj xoj xoj xoj xoj xam sa xam sa mule xam sa mule xam sa mule jina xoj xam sa Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Moulé Hamza Moulé Hamza Moulé Hamza Moulé jëna xot xot xot xot xot xot xot Hamza Moulé Hamza Moulé Hamza jëna xot xot bërëngu xot bërëngu xot xot xot bërëngu xot xot xot xot xot xot xot xot xot xot xot xot xot xot xot Hamza Moulé jëna xot xot xot bu baax aha forcé forcé serré forcé serré forcé serré jëna forcé Hamza xamsa xamsa xamsa xamsa xamsa xamsa xamsa xamsa yëkkati ko jinne na jóg na jóg na jóg na jóg na jóg xot xot xot xot xot xot xot xot xot xot xot xot xot xot loxo yi na ñëw solal ma samay dàll force he loxo yi sama dàll na ko na ko sololaat filmeel ñëpp gis macha allah la xalifa général na dugalaat si jinne bi ñëwoon naan day rey ki nga xam ne mooy xalif général. sumi samay dàll bi waaye nag yaakaar naa mi ngi koy solaat force. na solaat king of the king le maréchal le bureau des dëmm. jinne du ko vagué benn yoon. la maréchal moo ngi noonu di ko solaat nank ak xel mu dal te kii waxoon da koy rey ci benn jinne jinne bi nga xam ne ne mu àndoon ak yonent bi mi ngi noonu. <laughs> sallallahu waa. waa lii moom mérité na lu ko ëpp waay. macha allah gis nga l'empereur nii lay demee ci saa su ne jinne du ko vagué de moo ko sumee woon te moo ñëwaat. solaat ko macha allah te benn jinne ci milliard de jinne yu ñu moo ko humilié mooy Hamza Moulé jinne bi doon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah doole doole moo wóor dëgg moo wóor te xam-xam moo wóor jaaraama la maréchal jinne bi yaakaar naa ne wàcc na de fii vaaram fii xeeñ de instant mi ngi sëgg de. mi ngi sëgg daal di ñangootul xool ki nga xam ne mooy xalif général te yaa ñëwoon naan danga koy rey cay l'empereur suñu waa ji borom kun fa yakun ni lay demee saa su ne lépp suñu borom macha allah la Mara bien préparé sponsorisé par Allah. waaw mbokk yi defe naa ne lu ne fang dang kenn du ko jeex seentu asamaan jarul buuxante mbokk yi gis ngeen jinne bi di dof dof lu di summi sama dàll waaye gis nga fu mujjee ak man solalaat ma dàll bi. maanaam day day kannasu kannasu maa ko gën a kannasu foofu ndax yor naa ñu ko gën a dee fii ndax kooku noonu jinne bi ma yëkkati Hamza Moule xam ngeen ne kooku doole kese la ndax ki doon ànd ak yonente bi <laughs> ku yonente bi du ànd ak yambar yonente bi ay ndaanaan lay ànd ay ponkal macha allah kooku la ñu la ñu yëkkati mu toroxal ko humilier ko waaw moom lañu ñu yëkkati mu toroxal ko mooy humilier ko. merci donc euh, chers téléspectateurs qui nous suivaient sur la TMS TV. Euh, nous sommes en direct dans le cabinet médical du Khalif général. Alors, cet esprit avait préféré des menaces de mort à l'endroit du grand marabout. Mais dès que le marabout a commencé ses incantations, non seulement elle s'est approchée du marabout, mais elle s'est même permis d'enlever la chaussure du marabout. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé Ça se passe de commentaires après avoir bien été malmené par le marabout. Cet esprit a fini sur la demande avec insistance du marabout. Elle remettre la chaussure au marabout sous l'œil de notre caméraman Youssou Diallo Moustapha Fall. jërëjëf euh, Abdou Aziz xam nga ni mayu yàlla rek moo wóor te defe naa ni saa su ne ñu waxoo. waa Sénégal wax ko monde entier li yàlla suñu borom may yonent yàlla Souleymane mu daan duma jinne yi di leen tuubal loolu la yàlla suñu borom may le khalife général le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king di Alaaji Thierno Moule Sow kon ba léegi yéen ñu suivre suur la TMS bi di tele bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu làmboog jëriñ gis ngeen en direct sur la TMS bi gis ngeen jinne bi Euh, mi ngi ci yére sëriñ bi. amul jom. Euh, mi ngi ci yére sëriñ bi ginnaaw bi nga xam ni sëriñ bi soloo na ko dàllam te nag da doon menacé sëriñ bi waaye nag defe naa ni loolu lu ñu dund saa sune ci kër gi la menace ak leneen ak leneen waaye yàgg-yàgg ci suuf rek sëriñ bi ci kaw. Euh, donc mayu yàlla suñu borom rek sëriñ bi également gis nga ko saa su rek boo waxee lépp da koy delloo yàlla suñu borom ak yonent bi kon jaaraama Alaaji Thierno Moule Sow kon sëriñ bi ñu ngi ziaraat di la jox sa wàccuwaay di am kontante ak mbégte toujours di ànd ak yow fii ci sa euh, clinique ci la TMS TV bi ngay bégal Sénégal di bégal vraiment àdduna euh, ci xam-xam bi nga xam ni macha allah euh, kenn laam-laameetu ko parce que defe naa ni lu ne fànn kenn du ko jeex. macha allah Moustapha jërëjëf Ngone jërëjëf doyen mbokk yi gis ngeen ñoo ngi ci liggéey bi. ñu ngi fii nag ci TMS TV macha allah Diop a ngi noonu taxaw Alseni moo ngi taxaw macha allah Mbaye a ngi noonu Youssouf a ngi noonu macha allah ñoom yaat ma gars yi ñëpp a ngi fi gis ngeen wala kaana bi lu mu defaat waaye dana ko tekki. doon moo ki takkoon dana ko tekki waaw. lan moo tax nga def li ah. lu tax nga def li xam nga ne kii amul jom ñu toroxal la léegi nga nga ne yaa tey lan moo tax nga def li kilifa bu toll ni man toog ngay jël di jéem a takk ay yërem. maa yaa tey. kan laa tooñ man. man na laa la tooñee. man maa dem wala yenn yenn ñëw fi du yow yaa wax sax yow yaa yabal xale bi mu ñëw fi pour nga xeex ak man. Mm. maa ak yow kan moo tooñ yow yaa def violation de domicile yaa dugg sama kër. nu ma la tooñee yow. da damaa bëgg dama ko bëgg nangu ci yow. waaw danga koy takk rek man dama koy takk. kan moo la koy may. yaayam. mi. ak papaam. ak papaam di ngeen may jinne seen doom. waxal ak yaayam Moussa Ba. ñu la jox sa wàccuwaay. kon def naa dégg nga li mu wax. Hmm? nga ne. bi nga ne. maa lay takkal xale bi. ah <laughs> maay fecc kay xale bi maay fecc diggante bi kay waaw diggante bi kay laay fecc. diggante bi laay yàq laa wax. danga bàyyi xale bi yow. nga ne. doo du ma ko yàq. damaa bari doole. da ngaa doole. yow ko ëpp doole. man dèjà man fi ma toog duma naa la yëkkati naa benn jinne. loolu du dara ci man. du dara ci yow mooy lan. des na de. des na. vingt cinq. vingt cinq lan. kon kii am na vingt cinq jinne yu ko topp. Hmm. waaye yéen ñëpp di ngeen génn incha allah. du ñu génn. waaye force. fii sa kër la. waaw parce que da nga ne da tabax fii trois quatre cinquième étage. fan ci dënn xale bi foofu nga tabax cinquième étage jinne yëpp da leen invité ci biir xale bi pour lan. pour yàq xale bi. waaw. ngeen neen dafa tabax fii ci dënn xale bi cinquième étage. dafa baax. jàng rek jàng rek moom mooy lan. xale bi day day jàng rek. le vingt et une heures jusqu'à six heures du matin de. des fois du nelaw de. vingt une heures jusqu'à six heures du matin. kon kii xam nga ne bon élève bon eh, c'est bon élève. mu jug sangu julli après bu mu feebaree sax day ubbi fii kaay bi di jàng. Ah? ana kaayam. des fois dama koy permettre mu jàng. xamtu yaa adda dama indi bi ñu xool. ba nañ xam nga ne nag ah, lu ne euh, foog preuve tamit dafa am solo nee na xale bi tey tey sax dafa nekkoon di jàng léegi yow xale bi lu muy jàng daal moo la neexul. xale bi lu muy jàng neexu la. waaw su continuer moom jaari so. jaari so mun na ko triplé sax. jaari so mooy kan bopp bi moo bëri. boobu réeroon. duma ko bàyyi bu ah, xam xanaa jaari so danga nga koo xam. xam naa mu jàng. na feeñ. xanaa li ko yóbboon xam nga ci dara yow jaari so. Eh, bu ah. léegi yow li nga takk lii tekki ko. mbokk yi kon nag ah, ñu daal di toroxal jinne bi léegi rapidement ñi ñaa ngi ci biti yaa na pas de temps euh, kon nag ah, ma yëkkatiwaat. samay taalibe jinne yi nga xamante ne fii laa ko génne woon ci ci ci soxna yi tuubal leen ñu may liggéeyal ma yëkkatiwaat ci jinne yooyu noonu daal di koy toroxal moom jinne bi daal di koy duma macha allah su ko defee nag léegi nag macha allah ma daal di yëkkati beneen jinne eh, kaye bi moo nekk noonu ma xool filmeel kaye bi gis ngeen xale bi élève la gis nga kaye baa ngi noonu Moustapha kaye bi kay du sa kaye kaye xale bu jigéen bi la kaye baa ngi noonu c'est un bon élève ñëw na sax faju si di jàng di de di jàng ay leçon am xam ngeen ne kii bon un élève la ay bind yu rafet lay bind xool leen euh, macha allah kaye baa ngi noonu gis ngeen ko bon élève la. boo génn tuuti boo génnee tuuti rek day feex. gis nga yéen ñiy jàng yenn élèves yi ak yooyu yeneen a ngi gis seen mbokku élève bi seen mbokku étudiant bi étudiante bi seen mbokku étudiante bi gis ngeen ko bëgg na jàng trop waaye jine yi jinne bi mayu ko jàmm mu ngi koy ruubee gis nga ko même ci clinique bi mu ñëw faju sax bu ko jinne bi génnee sax day jël temps am jàng kon nag macha allah gis ngeen loolu li yëpp dafa bëkk ci preuve rek pour mu leer pour ngeen xam mbir yi macha allah waa téyel ni léegi nag ma yëkkati beneen jinne pour mu daal koy duma daal koy sonal ban jinne laay ban jinne ngeen bëgg ma liggéeyloo. waaw ndeysaan Falaay Balde ah. waaw gis nga jinne yooyu jinne waaw waa gintee ndeysaan macha allah di ñaanal aussi euh, suñu waajur boobu Faalaay Balde yàlla na ko yàlla xaare aljana te oyofal suuf ci kawam yàlla na ko yàlla xaare aljana waaye dama amoon benn jinne bi ma jàpp moom nee na Faalaay Balde la tudd ma ne ko ba xam xam nga faalaay bii mu ne xamu ko tur yi ñoo daje boobu jinne ba ma ko jàppee yàgg na de waaw te karaate kaale xeexkat la waaw ndeysaan jinne boobu faalaay balde la tudd waaw kon nag ñu boole ko ak faalaay mule jinna gis ngeen ndeysaan jinne yooyu dañu bari gis nga dama bëri ay jinne mais mënuma liggéeyloo ñëpp faalaay mule jinna faalaay attaqué jinne bu mën a xeex la nag karateka la aussi moom xeexkat bu day xeex faalaay jinna faalaay faalaay faalaay attaqué faalaay jinna attaqué ko faalaay faalaay faalaay jinna faalaay faalaay faalaay jinna faalaay attaqué attaqué kurfeñ boulon boulon boulon boulon kurfaj kurfaj kurfaj kurfaj boulon boulon boulon boulon boulon faalaay kurfaj jinna kurfaj boulon kurfaj kurfaj ko jinna kurfaj kurfaj kurfaj mâchoire ci mâchoire boulon kurfaj kurfaj boulon boulon boulon jinna xello kurfaj boulon kurfaj boulon faalaay ngi dóor jinne baa ngi dóor dóor yi ngande ay xàcc di dóor vip vip faalaay jinne baa ngi dóor fu mu nekk ni yéen gisoo leen mais maa ngi gis jinne baa ngi dóor tellement dóor yu soxor lay dóor mu ngi koy moo ngi koy noqos mu ngi koy noqos yu ci faalaay faalaay moo ngi koy roqos moo ngi koy roqos jinne baa ngi roqos faalaay faalaay faalaay faalaay faalaay faalaay yàq na kanam gi moo ngi dóor faalaay moo ngi def nii faalaay moo ngi moo ngi moo ngi def nii moo ngi def nii faalaay jinne faalaay faalaay faalaay faalaay faalaay jinne baa ngi dóor jinne baa ngi dóor faalaay faalaay faalaay jinne vip vap vip vap vip vap vip vap vip vap vip vap instant bi jinne baa ngi dóor faalaay faalaay faalaay faalaay dóor ko ba mu wàcc faalaay faalaay faalaay dóor ko ba mu tëdd faalaay faalaay faalaay faalaay jinna vip faalaay mule faalaay mule faalaay mule vip dóoral faalaay faalaay faalaay faalaay jaxase prince ko prince ko jinna prince ko nooju ko nooju ko jinna nooju ko kor ko kor ko jinna faalaay nga koy nooju di ko kor kor mbokk yi jinne baa nga koy dóor dóor yi metti sax li doon neex nit ñi di gis jinne bi lu muy def jinne baa nga koy kor xam nga ne jinne boobu xeexkat la ndeysaan xoolal rek jinne dama bëri ay jinne faalaay faalaay faalaay jëna kor dóor kor kor ko kor ko jëna kor faalaay faalaay kor jëna baa ngi koy kor kor kor faalaay faalaay faalaay faalaay mâchoire yi mâchoire defe naa ne jinne bi dem na faar de ah tey kenn mu de ne jóg yëkkati ko faalaay yëkkati ko mu ñëw yëkkati ko mu ñëw yëkkati ko jëna yëkkati ko sëq ko mu ñëw na ñëw tekki sama lo na ñëw tekki lu mu takk fii na ñëw xëcc ko mu ñëw jëna xëcc ko xëcc ko mu ñëw na tekki lu mu takkoon na ko tekki ñaari loxo bi na ko tekki na ko tekki na ko tekki te Thierno Moule the king of the king le xalif général du ak ban jinne tamit xalaat leen jinne yi yàgg yi waaw kabla kabla jinna kabla kabla kabla kabla jinna kabla kabla muule jinna kabla kabla kabla kabla jinna kabla kabla kabla xam nga boobu jinne bu dof la jinne bu garaaw la do xeex rek lay def kabla kabla jinna vip vap vip vap vip fab kabla kabla kabla kabla kabla kabla kabla kabla kabla aha day fayu lemal lemal loxo yi ci ginnaaw kabla kabla kabla lemal loxo yi ñaari loxo yi ci ginnaaw ñaari loxo yi ci ginnaaw ñaari loxo yi ci ginnaaw sigil ko kabla kabla kabla kabla kabla kabla moo ngi muur kanam gi ndax jinne baa ngi dóor ci kanam gi vip vip jina vip vip vip vip vap vip vap vip vap vip vap vip vap vip vap vip vap vip vap vip vap xale bi di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi vip vap kabla kabla kabla kabla kabla kabla kabla tant que waxul dina bàyyi xale bi bul bàyyi jina vip vap vip vap vip vap kabla kabla kabla kabla kabla kabla vip vip vap vip vap jina vip vap vip vap vip vap vip vap vip vap jina baa ngi dóor kabla kabla kabla kabla vip nga ne doo ko baay kon nag gën ko duma jinna kabla kabla jinna vip fap vip fap vip maas ko courant jinna maas maas maas ko courant maas maas maas kabla kabla maas maas maas ko courant maas jinna maas maas kabla kabla kabla kabla kabla kabla maas vip fap vip fap vip fap vip fap sotti ko sotti ko betax sotti ko betax tàngalal betax nga sotti ko tuur ko betax bi tuur ko betax bi tuur ko betax bi tànk bàyyul bul bàyyi tuur ko betax tuur ko betax xam ngeen betax dafa tàng betax bu tàng jër sotti ko betax bi xam nga boo jinne loo wax day def nii rek indi day tourné rek xëcc mu ñëw jinne bokkul ak nit maanaam jinne boo waxee dara rek day tourné rek xëcc mu ñëw tuur ko sotti leen ko betax kabla kabla betax bu tàng jër betax bu xonk cur ba yaram bi lakk betax betax sotti leen ko betax sotti ko betax sotti ko betax sotti ko betax bu tàng jër kabla kabla kabla kabla kabla kabla kabla lakkal yaram bi lakk leen yaram bi sotti leen ko betax bu tàng jër na wax bàyyi naa xale bi tànk waxul bu leen ko bàyyi jinna kabla kabla sotti leen ko ba bu tànk jër jinna kabla kabla kabla kabla kabla kabla kabla jinna jinna kabla kabla kabla kabla kabla kabla kabla ak ban jinna tamit ah di bàyyi de boo sonnee di nga bàyyi defal ni micro boo sonnee boo sonnee force di nga wàcc waaw baax na mbokkuñ jinne bi nee na du bàyyi kon nag yéen a ngi yéen a ngi seetaan ci TMS. macha allah ah, ci ndigalu sëriñ bi. Mhm. ñu ngi am mbégte yéen a ngi ñuy suivre sur la TMS TV. Mhm. ak le xalif général le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king Thierno Moule Sow ñu koy wax l'empereur le maréchal le bourreau des dëmm le xalif des xalif le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king. ngeen ñu suivre sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu làmboog jëriñ ma ànd ak ci commentaire yi soxna Ngone ak euh, le doyen Abdou Aziz Diagne ngeen gis ni nag sëriñ bi mu ngi woneeti boppam macha allah ci xam-xam bi nga xam ni moom la ko suñu yàlla moom la ko yàlla suñu borom jox nga xam ni àdduna fu ne la nit ñi di riire muy Afrique di le monde entier di ñëw fii ci kër gi euh, fii ci Cambérène 1 nekk ci wetu terrain jamono en face géej gi kon ba léegi ñi ngi ci waar wi macha allah kon sëriñ bi defe naa ni euh, saa su la ngeen gis ñu indil ko addiye waaye addiye boobu euh, du dara euh, addiye la waaye sëriñ bi kenn mënu koo fay waaw kenn mënu koo fay moo tax toujours nga dégg nit ñi bu ñuy wax dañuy wax ni dañ koy bàyyee ak yàlla suñu borom parce que xam ngeen ni jinne dafa nekk lu dangereux jinne moo lëmbee adduna bi moo ne ci kër yi moo ne ci fépp loolu nag defe naa ni Euh, raar na nga gis sëriñ bu ñemee affronté boo affronté benn yoon rek doo ci dugaat nga gis sëriñ bi ay ati at mu nekk ci euh, jinne lu mu dangereux dangereux mu rocc ko ci euh, nit ki téye ko fii defe naa ni loolu il faut nga am may yàlla ngoone denk mu am lu am solo kon sëriñ bi ngay ziaraat di la jox sa wàccuwaay di am mbégte di ànd ak yow sur la TMS bi di la delloo kàddu bi waaw macha allah xale bu jigéen bi di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. nga ne dinga ko bàyyi walla doo ko bàyyi doo ko bàyyi mu ne a woppaani boo koy nee na du bàyyi xale bu jigéen bi xaala nag ñu torturer ko ñu def ko nga ne soo ko bàyyi day tàkk léegi nag yow lu tax mënoo ko bàyyi mu tàkk nee na su bàyyi xale bu jigéen bi day tàkk kii soxor na de maanaam su bàyyi xale bu jigéen bi day ubbeeku mbiram day baax léegi lu tax boo ko bàyyee mu tàq nga ne doo ko bàyyi. Ah? dafa xees. mais du moom rek moo fi nekk ñu xees. moom rek nga bëgg. encore. bàyyil doomu jaamur bi lañ wax. hee bu ñu fonto laa la mun nga ko bàyyi wala mënoo ko bàyyi. yaa bañ léegi nag ban jinne laay liggéeyloo aussi ci jinnay sadik yi. li nga jot gis fii macha allah euh, looñ ci mën a wax. Ah, wayi ko mum ko ɗum tiiɗi hoore o ceerno wadde makko tan mbimo makko on tiiɗi hoore nenam jinne mbi dafa dëgër bopp mu ne. Saarès 24. 24. mu ne Saarès 24. am na bu génn kon. mu ne Saarès 24. hee. mun nga bàyyi kii wala munoo ko bàyyi. jamais. jamais. <laughs> na wàcc jóg nee na du ko bàyyi dina am toroxal léegi léegi mu bàyyi ko force. Ngoné Abdou Aziz Diagne kon dégg nga nee du ko du ko bàyyi kon euh, kon defe naa ni euh, humilier ko que sëriñ bi moom defe naa ni fa mu daan jaar rek euh, lay jaar. jinne moom du la du la may dara alors gis ngeen. doo ko bàyyi wala doo ko bàyyi. bàyyi wala doo ko bàyyi. waaw dinaa ko bàyyi. ah wala doo ko bàyyi. waaw waaw dinaa ah defe naa ni kenn du kenn mu alaaji kenn mu la sow. kenn du moom dégg nga ah, jinne bi nee na dina ko bàyyi ah, xam nga da doon def li ñuy wax tourner autour du pot di wër-wërloo boobu ba léegi ah, defe naa ni nag sëriñ bi bu mbir mi tolloo fii nag. maanaam da lay da lay torturer da lay waaw ndox rek ndoxu vite fait bi ndox vite fait bi ñëwagul waaw euh, te vite bi ñëwagul euh, cuuraay volcan jooni jooni bi ñëwagul fossé blindé bi aussi ñëwagul cey Thierno Moule te loolu mënoo ko am fii lu kër xalif général macha allah defe naa ni loolu euh, kër gu nekk nag war na ko am vite bi dafa am solo de vite bi kër gu ne war na ko am cuuraay bi kër gu ne war na ko am fossé Blédé bii kër gu ne war na ko mën a am parce que jëmm ji nekkul ni saa sune rek boo ñëwee fii nga koy gis lay disponible donc saa sune ku ne war nga ko mën a jël def ko ci sa biir kër moo tax ngeen di gis GP yi semaine bu ne ñu ñëw jël si commande yi di ko yóbbu ba Amérique ba Allemagne ba États-Unis macha allah kon euh, xam ngeen ni ku ko jënd ne ci sa kër rek defe naa ne ci jàmm ngay ne ba pare ngoone dafa am leneen lu ci ne. boo amee blocage aussi ci sa wàllum liggéey wala nga bëgg a tukki defe naa ni yooyu yooyu yëpp vite fait bi wala cuuraay volcan jooni jooni bi moo ci baax wala volcan bi dama ne euh, roy nag mu rek pire euh, loolu am na ñuy ñëw sax fii ci kër gi ay sëriñ yuy ñëw fii di ko jënd dem fële waaye damay wax ni euh, loolu seen wërsëg la bu ñuy jël ci sëriñ bi parce que xam nga sëriñ bi géej la ku nekk mooy jël wërsëgam ci moom kon sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat di jox sa wàccuwaay euh, di dina delloo kàddu gi di am mbégte toujours di ànd ak yow euh, ci la TMS TV nga xam ne mooy télé bi lëpp bi bi bi bi bi feeñe lépp lu nëbbu làmboo ak njëriñ ak Abdou Aziz Diagne ak Ngone Moule macha allah dinga ko bàyyi wala doo ko bàyyi he he he he di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi bi boo nga xolu de waaye moom di nga ko bàyyi force di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi laa. man xaw ma koy takk sama fuuda sa koy takk. Ah, doo ko bàyyi. di nga ko bàyyi wala doo bàyyi xale bu jigéen. di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi ah. he di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi ah. mbokk yi ndox rek laay def de dafa guma sax vite fait bi. ngeen mbokk yi. di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi ah. he di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi ah. di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. ma ne ko la woon foo woon rek Abdou Aziz dégg nga di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi mu ne dina ko bàyyi. te gis nga macha allah xam-xam rek wóor sëriñ bi utilisé wu lenn li war a ñëw muy volcan jooni jooni bi wala vite fait bi dara ñëwagul nga xam ni mayu yàlla rek moo wóor Abdou Aziz Diagne kon ba léegi ñu ngi suivre sur la TMS TV. ak sigil fii médecine traditionnelle du monde. dama bëgg nga bàyyi ko nga tuub nga tuub bàyyi xale bu jigéen noo tudd nan nga tudd. Assane. Assane. ñaata tur sànq danga ma ne woon bëri nga ay tur ak nan waxal. Kalidou. Assane ak lan. nga ne. Youssou Ndour. Youssou Ndour mooy la he bu ñu fontoo noo tudd waxal. he waxal. waxal. maanaam. Seynabu. Seynabu. bu ak lan. bu mag bi nga bugg a xam. waaw. kii jinne yi ko topp dañoo bari de. waxal. bi bi ban mooy tur ah actuellement kan mooy wax ni. bu mag bi bu mag bi nan mooy sa tur dëgg. waaw. sa tur dëgg lan la. man sa tur dëgg lan la na wàcc ah, ñu ngi koy wàcce waat ñu ngi koy wàcce waat noo tudd pour pour jox yow noo tudd comme nangul noo tudd euh, jëfee wala dégg lii noo nga ne bu ñu ko wàccee mu ne danaa wax waaye buñ ko bàyyaatee mu toog rek. noo tudd nga ne. mu dof dof lu waat. hé noo tudd. chef bi chef bi ah. mer laa yow mii wax noo tudd laa la wax. Abdul Karim. Abdul Karim. yow yaa ci serpent bi wala yow yaa ci lan. serpent. serpent. dama bëgg nga bàyyi xale bu jigéen bi léegi léegi mécatement mu tuuba la nga génn ci moom d'accord. waaw. d'accord. oui c'est bon. waxal ashhadu an laa ilaha illa allah. ashhadu an laa ilaha illa allah. ashhadu an laa ilaha wa ashhadu anna abduhu wa rasuluhu. bés ni ki tey. tuub naa dugg naa ci diine lislaam sallallahu alayhi wa sallam Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Sow Thierno Moule Sow Sow Thierno Moule Sow Sow Thierno léegi nag jinne bi dama koy tuddee ziyaar ziyaar taalibe Thierno Moule Sow 2021 baax ziyaar 2021 ah macha allah dafa dafa ziar waaw ziar 2021 hmm. euh, addiye mule addiye mule waaw kon nag ngeen ni ñi ngi jëm ci lu rëy waaw he ah, ñi ngi jëm ci lu rëy tuddee naa la ziar 2021 addiye mule kon mbokk yi noonu nga tudd ziar 2021 addiya Thierno Moule Sow ziar 2021 addiya Thierno Moule Sow kon yéen a ngi ñu suivre sur la TMS TV alxamis ñu jëm nag ci événement bu mag. gannaaw suba gannaaw suba. bis bi laa tuddee jinne bi. bés bi lañu tuddee jinne bi. ca almadi ci kër euh, le xalif général di alaaji Thierno Moule Sow ñu ci woon ak yëpp ak fant yëpp nga fële ci ziar le xalif général di alaaji Thierno Sow képp ku bëgg a ziare alaaji Thierno Moule Sow. mën nga ñëw euh, alxamis fële ca almadi boo fa ñëwee di nga gis sëriñ bi nga daal di koy ziyaare defe naa ni alaaji Ceerno Moulay Sow nag euh, àdduna euh, ñëpp koy bëggee ñëpp koy safoo ñëpp koy bàyyi xel ñëpp ay sàkku ñaanam kon defe naa ni ziar boobu dana nekk loo xam ni lu am solo la TMS bi dinañ ci am taxawaay bu am solo waaye association daarulaay famille bi nekk fii Sénégal te ay Alseni Sylla jiite ko euh, ñoom it aussi dinañ ci am taxawaay bu am solo sëriñ bi nag euh, li may wax ab géej la saa su rek dañ ko war a di ziar donc bu leen fàttee mbokk yi képp kuy seetaan la TMS TV gannaaw suba alxamis bu ngeen xëyee mën ngeen ñëw fële ci almadi bépp fans képp kuy safoo le xalif général bépp taalibe mën ngeen ñëw fële ci almadi ziare sëriñ bi ñëpp daañu mobiliser wu nekk fa kon sëriñ bi ñi ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay di am mbégte ba léegi di ànd ak yow ci waar wi xam nañ ñi waar wi moom saa su yaa ngi ci guddi yaa ngi ci bëccëg moo xam ndax yaa ngi ci clinique bi wala yaa ngi sa kër nit ñi ay weer dañu lay oo euh, duñu la mën a jot parce que saa su yaa ngi nekk ci waar wi kon defe naa ni loolu aussi mbégte la loolu sant yàlla la moo tax ma ne mayu yàlla suñu borom rek moo wóor Abdou Aziz Diagne. je peux dire maintenant que la bataille a livré son verdict et finalement, le mauvais esprit qui était en face du marabout qui avait proféré des menaces. doyen tegal sa baaraam ma ñëw. waaw eh d'accord pour bi ma la jox. JR 2021 Adiya Thierno Moule Sow. taalibe yi macha allah dañuy ziar alxamis noonu laa tuddee jinne bi jour maanaam ziar bi laa tuddee jinne bi. ziar 2021. adieu. d' accord. ah. ah, ah. ah? bi naka la noo tudd. nan laa la tuddee léegi. nu ma la tuddee. nga yow laa jox turu ziyaar bi ndax yow laa njëkk a jàpp ci jinne bi nga xamante ne ziyaar baa ngi doog a ñëw te man lépp luy waaj a xew su ma jàppee jinne dama koy jox tur boobu ziyaar 2021 addiye Thierno Moule Sow macha allah. mérité wu ma loolu de. waaye loolu laa lay tudde waaw na ma baal. kan. moom moom kan xale bu jigéen bi mu baal la. lu tax nga ne mu baal la. yàqal lan nga ko yàqal mun nga ñu wax tuuti. comme lan. day jooy rek. day ah. actuellement kan mooy jooy ni yow walla moom. man yow jinne bi mbokk yi lii dafa daw yarama ah. jinne bi xam na ne instant bi day waaj a génn ci xale bi mu ne wax ko na ma baal man nag mënuma ko baal moom mooy baalu fii dënn bi xol bi nga ne yow yaa fa tabax R plus 5 waaw dem na sax kër Diana Sawa sax waaw waaw nee ko faj mu décrire benn série comme yow la ah nee comme yow la moo moo ko mën a faj kan moo wax loolu kan moo wax loolu Ceerno Sama Saw mhm. moo ko ne nee na mënuma faj mm. mënul faj ak jigéen bi mu jox ñu benn description comme yow la mu jox leen benn mu jox leen benn tegtal loolu tamit bëgg nañ ci xam mu leer macha allah waaw euh, Abdou Aziz balaa ma la jox kàddu gi ah dem nga dante hôpital dante hôpital bu Matam. régional bu euh, moom dem na foofu. waaw pour faju problème bi lan la woon kan la woon nit kan moo nekkoon feebar bi. yow yaa nekkoon problème bi. Ah. léegi yow ba ngay. ah yow yaa ko teg feebar boobu mu dem ci hôpital yi nga lim yëpp mu dem aussi tamit ci sëriñ bi nga wax nii après mu tetal ko ku mel ni. njurub dem Simon. foo fal la ci Fuuta. déedéet. dëkk séeréer njurub dem nga njurub. waaw waaw. léegi yow bañ doon dem foofu yow foo nekkoon yow jinne bi fan nga newoon yow da nga daan ànd ak ñoom wala. déedéet dem. da ngay dem fan. aa dem ah, yow ci géej nga dëkk. waaw. léegi yow est-ce que li nga gis fii gis nga ko feneen li nga daj fii est-ce que daj nga ko feneen fi nga daan dem yëpp. <laughs> damaa bari feem. feem lan. comme lan. yow foo jóge. man fu ma jóge. lu tax nga laaj ma man fu ma jóge. man kay dama waa yaa ma wàccee nii. da ngaa waaru xanaa da nga yaakaaroon kenn du la mos a wàcce da nga yaakaaroon kenn mënul ci yow dara ndax fiñ lay yóbbu yëpp mënuñu ci dara nga yaakaaroon soo ñëwee fii noonu lay demee dégg ngeen loolu macha allah. am na solo euh, parce que. xale bu jigéen bi mu baax la. safara nga jëm léegi nag xale bu jigéen ba léegi ñëwul baalu yaayu xale bu jigéen bi. gannaaw mooy waajuram bu jigéen ñëwal baalu ko ba pare soo ko baaloo ba pare nga delluwaat baalu xale bu jigéen bi après ñun ñu wax ko mu baal la kaay baalu ci yaayu xale bu jigéen bi ñëwal baalu ko ñëwal jege si yaayam. aha topp leen ko ak caméra mu ñëw baalu yaayu xale bu jigéen xam ngeen lii jamais bi aha ba moo ngi baalu soxna si jinne baa ngi moo ngi lay baalu yow mi yaa jur xale bi moo ngi lay baalu baalu ko jinne waxal baal ma baal naa sa doom maa ko yàq du génn néeg bii rek télé wala rek. Arsène la traduction. la naa ko lu bari de. yàqal nga ko lu bari. waaw waaw. yaa ngi dégg soxna si. Eh, yow eh, eh, ah, yaltara ah. waaw dégg ngeen mbokk dara du dem xew. lépp la lépp mën la. di wax. am sax góor. waaw. góor maanaam daal du du am xarit daal. su góor waxee ak moom dëgg day énervé. day énervé <laughs> yi la parce que am na ñi nga xamante ne. dañuy fiir mm. kan kan mooy def loolu. man. man Karim. non léegi kay nekkatul Abdou Karim léegi kay ziar ah. ziar 2021 lii foor na gis ngeen jinne baa ngi baalu xam ngeen ne lii rek kër mu Moule dong rek nga koy gis mbokk yi ah mbokk yi gis ngeen ba pare jinne baa ngi téye sama tànk yi moom it di jéggalu gis ngeen kon nag lépp suñu borom la macha allah. kon xam nga ne ku fi ñëw indi sa xaalis sàndiwoo sa xaalis gis nga sëriñ bi day dem ba jeex tàkk macha allah xale bu jigéen bi bon élève la nit la ki nga xamante ne macha allah il est intelligent am na lu yàlla def ci moom jinne bi dugg ko di ko indil jafe-jafe dem ba tabax immeuble fii cinquième R plus cinq fii ci dënn bi yóbbu nañ ko fu ne ci sëriñ yóbbu nañ ko fu ne ci hôpital Dantec zéro waaye dara waaye gis ngeen yàlla gis nga ba mu ñëwee sax sax ma wàccee ko zéro. mu ne ma ba xam man man may kan ba xam man moom yaakaar woon dinaa ko wàccee doyen. waaw sigil <laughs> euh, mbooloo mi yéen a gis xale bu jigéen bi nga xam ne ni dafa am lu lu doy lu ko toppoon dégg moom moo wax ci làmmiñu boppam fu nekk dem na fa dem na hôpital régional bu maatam Ourossogui gi def na Dantec ak fànn ndax dafa am lu nekkoon ci dënn bi loo xam ne daf ko dikkee comme fu ñu tabax R plus cinq étage defe naa ne loolu xëjul ci dënnu xale. moo ngi fo moom mooy fompal dàll yi. alors mu nekk ci moom ñu di ko faj garabu. ah tubaab. gide ko. ko. mu ne nga dañ koy liggéey rek surtout école. dañ koy liggéey waaw mais yow bokk nga ci ñu ko man maay tey liggéey yi. yow yaay tey def nañu armée yëpp parce que meilleur ah, nee na meilleur élève la dañ koy liggéey rek. waaw. mbokk gis gen xale bi am mais élève nan lay liggéey moroom élève xanaa day dem wax sama day dem wax yaayam ak papaam kii nangam nangam. Hmm. loolu la de hmm. ko dinañ ko ñaanal léegi daal jéggalu nga yaayam léegi jéggalul xale bi aussi. ah. dina nangu. xale bi dina nangu. léegi nag yow yaay génn ak sa léegi nooy def ak sa prix cinq boobu noonu. immeuble bi nga tabax ci dënnu xale bi xoolal immeuble xam nga jinne moo bari pexe nga dem tabax immeuble el prix cinq ci dënnu nit. damay tëgg foofu. ah damay tëgg foofu. da ngay tëgg. togg foofu. saa saa yaasa yëpp. ay yaasa ci ci ci bi. damay lekk de moom du lekk de. da ngay lekk te moom du lekk xanaa moo tax mu wow ni gis ngeen mbokk yi moo ngi raay tànk bi euh, ute na ak sànq ba mu ñëwee xëj sama dàll bi sànni fe xoolal jëlal loolu gis ngeen trop tard fii rek lay mujje nangu rek macha allah lii jinne bi du nit ki nag jinne bi la de jinne bu góor bi mooy laal dàll yi nii pour mu leer léegi nag macha allah. am na solo ziar. deux mille vingt et un. Addiya Moulé. Thierno Moulé Sow. waaw. ziar. waaw deux mille vingt et un. Addiya Thierno Moulé Sow. xam ngeen nag kiraama dëgg boo koy wër. boo gisee lii jàppal li ma def nii kiraama la. dëgg la kiraama bu bu leer naññ la. macha gis ngeen jinne bi dafa newoon dafa may rey. Hmm. di tëkku waa kër gi yëpp di indi ñi ñëpp kurtu karta hmm. gis ngeen fu mu mujj ak moom tuubal naa ko. Hmm. maanaam dugal ko ci lislaam mu ñëw tuub. ci xale bi di jéggalu léegi yow looy def ni ngóone lii mooy jooni jooni mooy bi nee na damaa sonn moo ngi may kiiwal sama tànk yi mm. xam nga ne <laughs> bu dañ yeneen sëriñ yi du ñu ñeme macha waaye xam nga ne Thierno mu lay du ko jeex léegi nag macha allah ñu daal di lay génnee ci xale bi mm. d'accord ah teelul kay moom koy génnal ci doomu jaambur bi ah ñu génne la nee na ñu génnee ko léegi nag bés ni ki tey fii ngay nekk ci sama kër gi fii d'accord nga bàyyi doomu jàmbur mu am jàmm ah doomu jàmbur bi nga bàyyi ko mu am jàmm déjà yow boo génnee équipe bi dañuy génn léegi li nga tabax fii ci dënn bi toj ko li nga tabax ci dënn bi dindi ko waa toj ko dindil fu li nga tabax ci dënn bi jine baa ngi dindi cinq bu ñu tabax ci dënn bi calculer ay R+5 nga koy tabax ci dënnu jàmbur jine fu ne la xaj étage fii R+5 ci dënnu jàmbur moo ngi toj moo ngi toj immeuble bi moo ngi daaneel immeuble bi moo ngi taaneel moo ngi daaneel bâtiment bu mu tabax ci dënnu xale bi bâtiment bi moo ngi koy daaneel xam ngeen ne bâtiment bi moo ngi koy daaneel nee na dafay togg ci biir bâtiment bi day lekk waaye xale bi du lekk c'est grave mbokk gis ngeen lii lu ne fang lu ne fang kenn du ko jeex. amul fenn lu dul defe naa ne saa su ne ñu ngi leen di indi hmm. ngeen di seetaan TMS TV. Hmm. mooy tele buy feeñal lépp lu nëbbu woon te làmboog njariñ. Hmm. gis ngeen lii jamais vu amul fenn. Ah, amul fenn yaltu. ngoone amul fenn. jina yaltu. yaltu moo koy jinne baa ngi génn jinne baa ngi jinne baa ngi toj immeuble bi d'abord après mu daal di génn jinne tojal. yaltu jinne baa ngi toj jinne baa ngi toj immeuble bi neena ci dënn xale bi fii la ko tabax tojal tojal jinna tojal nee na xale bi dafa xees il est intelligent day jàng kese calculer li ñuy fuutal lañ jógee dem nañ fu ne waaye dara waaye fii la yàlla dogalee fii la yàlla def xam-xam bi ak baatin bi doyen dafa wax lu am solo. waaw nee na demee ci sëriñ boobu ñuy wax Thierno Sama Sarr. waaw daf ne leen mënu ma ko faj. dëgg la waaye jox leen ay tegtal yoo xam ne nii ci yow mii la macha allah. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. Abdou Aziz Thierno Samassa ñu ngi koy nuyu. Thierno Samassa defe naa ni macha allah. Euh, kooku aussi ku yàlla may la bu demee ba wax euh, ay tegtal pour. ñu ah? ñëw ci alaaji mu Moule Sow kon nga xam ne am na arena de. am na arena waaw am na ñoom ëmb seen chaque dimanche. dañuy def lamb. ba toj ko am na arena. mu am na fii nee na am na stade fu ñuy bëree. dënn bi day métti rek. loolu yëpp ay are dafiy def arena sax comme fu mbëri di bëree dafa tabax foofu ci biir stade ci dënn xale bi. ah tojal arena bi. waaye nag du arena mbëri de arena bi nga tabax ci dënn bi. dindil arena boobu arena bi nga def ci dënnu xale bi. Oh, xanaa mbaru jinne yi ñooy bare foofu. Sadio Mané nag day dem. ah Sadio Mané. Sadio Mané mooy kan. jinne la. nee am na jinne bu tudd Sadio Mané. am na ku soof. mu tudd ko Krépin Diatta. ah. am na jinne bu soof. nu mu tudd. Krépin Diatta. Krépin Diatta dafa soof. Zoor la. nee na am na jinne bu tudd Krépin Diatta. Krépin ah ok ci équipe nationale la nekk. Mm. Ah, mais mi mm. ñoom ñëpp am nañ ay turandoo jinne kon mm. yi nga jinne yi jinne ak nit ñi ñooy dund nag léegi kon tojal arena boobu nekk ci xolu xale bi ak trois euh, cinquième étage yi mu gaaw. mbokk yi c'est grave xale bu jigéen bi gis ngeen bu am bu fi ñëw loon du baax ci moom xam ngeen ne lii nag mayum suñu boroom la dem na ci ay boroom xam-xam waaye ñu tettal ko ku mel ni Thierno Moule Sow macha allah ñu yabal ko ci ginna yaltu tojal tojal génneel affaire yi génn lépp après yow ma daal lay génne. mbokk yéen a ngi gis loolu macha allah yéen a ngi gis loolu. yéen a ngi gis loolu macha allah léegi nag génneel affaire yi nga génn nga génn ci xale bu jigéen bi jinne baa ngi génn macha allah ziar 2021 Thierno Moule Sow euh, addiye mule jinne baa ngi noonu di génn léegi maa ngi koy génne moom ak yeneen i mbokku jinne mi génn leen ci xale bu jigéen bi yàq ngeen avenir am yàqal ngeen ko c'est un bon élève xale bu jigéen bi nga xam dafa bëgg a jàng dafa intelligent jinne may ñu ko jàmm dañ ko duggee Congo ba mu amee 4 ans ñu dugg ko vraiment di ko yàqal di ko sonal amul jàmm amul salaam gis ngeen mu xiiboon du lekk du naan vraiment bu demee école ba di am ay jafe-jafe papam daw na ba sonn yaayam daw na ba sonn ba suñu benn taalibe bu ñuy wax Kalidou Soko moo leen yabal fii ndax ay mbokkam jaar nañ fi ak ay njabootam vraiment mu yabal leen fi kon nag jinne yaltu mbokk yi jinne baa ngi génn lu ne fàng lu ne moo ngi génn yaltu génneel yaltu aha gis ngeen ko yaltu yaltu génne lépp génne lépp nga génn ci xale bu jigéen bi ni mu gën a gaawee mu gaaw génne lépp nga génn ci xale bu jigéen bi bokk yi gis ngeen gis ngeen ñu wax wax naa la jinne ñu baax ñi rek la ñuy topp xam ngeen ne kii élève bu baax la bu ko yàlla dimbalee mën na yor yaayam mën na yor njabootam mais gis nga non foog ñu jëm ko sonal jëm ko indil ay problème jinna mu gaaw mu gaaw tojal lépp nga génn ci moom yaltu mu gaaw mu gaaw jinna yaltu yaltu sarga foyra go ayat jina yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu baa ngi génn moo ngi génn moo ngi génnee lépp lu mu defoon ci xale bi génnal mu gaaw macha allah mu gaaw mu gaaw yaltu yaltu génnal lépp li nga def ci xale bu jigéen bi ak lépp lu li nga def ci xolam ak lépp nga génnee ko li nga def ci biir bi ak ci dënn bi lépp nga génnee ko jinna yaltu mbokk yi jinne baa ngi def loolu génneel yaltu yaltu génneel yow sa mbokk jinne yi ñaar ñaari étage yi waaw ñaar étage yi waaw ak ñetti télévision yi toj na nee ñaari étage yi ak ñetti télévision kon mbaa danga nga fa defoon ay télé ak photo yi ak jëlal kanam gi gis nga ko nee na ñaari étage toj na ak ay télévision jinne bi daal dafa dafa defoon immeuble am meublé ko defar ko ba mu baax daal du non kii kii kii bu fi ñëw loon du baax ci moom de ñii hmm? li leen fi indi sax xamuñu ko ah nga ne mbida so arando mojjaani yaayam nee na bu fi ñëw loon du baax kon nag gis ngeen liggéey bu mag bi ñu def nii macha allah même pas ay seconde ak ay minute gis ngeen ko nii c'est grave ah bismillah génnal mbokk yi jinne jinne baa ngi génne affaire yi jinne baa ngi génne affaire yi moo ngi toj affaire yi di génn ci xale bu jigéen bi xam tabax dafa metti lu mu tabax lay toj bismillah moo ngi toj moo ngi toj mhm. ah. nga ne lii lu garaaw la aha aha aha aha mu gaaw jinne baa ngi toj étage yi moo ngi toj lépp li nga xamante ne moo nekkoon ci dënn xale bi R plus 5 la fa tabaxoon moo ngi koy toj xam nga ne R plus 5 toj ko yombul moo xam ngeen ne ak ay meuble R plus 5 ak ay meuble ak ay télévision ak ay arena ñëw li nga xamante ci xale bi bari na hmm. xale bi tollul nenn waaye gis nga jinne am nañ baatiñ bi nga xamante ne mun nañ la mun nañ tabax lu ne sa biir yaram te doo ko xam xam nga ne lii ku ko xamul mënoo ko comprendre ñoom nag fuuta lañ jóge fuuta presque am nañ fi ñeenti fana gi la jodi waaw ah, léegi léegi war nañ fi ëpp juróomi fan aha jodi lañ fi ñëwoon te tay la mardi ngeen ni lay demee fii ci TMS TV mu gaaw yaltin yaltin ah ngi noonu di ah? waaw nee na dafa tabaxoon cabinet Cheikh Anta Diop nga ne cabinet Cheikh Anta Diop. naa xale bi li mu jàng yëpp foofu nga koy def Cheikh Anta Diop de moom écrivain la woon wala. naa xale bi di jàng yëpp foofu nga koy def. ah jinne bi doy na waar de. aha tojal tojal lépp pour xale bi mën a feex am jàmm. tojal lépp tojal lépp mu gaaw mu gaaw fus xel xel foof xel xel xel xel xel xel xel xel xel xel xel xel xel xel xel xel xel xel kel kel kel kel kel kel kel xel xel mbokk yi jine baa ngi toj jine baa ngi toj ay immeuble ay bâtiment mbokk yi c'est grave ah mbokk yi jine baa ngi toj ay immeuble xam ngeen ne xale bu jigéen bi sonnoon na de ah lii dafa doy waar lu yéeme la vraiment macha allah waaye nag suñu borom rek moo ko orienté fii ci man ndax ñoo ngi jóge ba Fuuta ki nag ki may fàttali mooy Jigilin Soomoon waaw day ndeysaan moom la may fàttali xam naa nag bientôt ngeen dem foofu am na ku ma woo Abu Diop mu ne ma waa Njigilin Soomoon am nañ foofu benn jàkka benn jumaa munul egg boobu ba tey dañ doon ñaan dimbal ma ne ko incha allahu dinañ ci taxaw xam naa bis boo leen di dem foofu. dinañ fexe def ci suñu addiyee ñun tamit ci jàkka ji jàkka jooju dégg nañ annonce bi Abou Diop wax na ma ko xam naa du yàgg bientôt balaa tabaski war ngeen mën a dem foofu n'est-ce waaw ngeen dem foofu def tournée ñu xool ñaata équipe moo ñooy dem foofu pour dem jël waa dëkk bi aha mu gaaw mu gaaw léegi lan moo des lan moo des xam nga ne kii bu ñëw loon fii lii dara du baax de xam nga ne ah R plus 5 arena ay ay cabinet say Anta Diop lan moo des parce que xale bi du xool bi dafa doon metti rek o waɗano crise tamit dafa daan crise dafa daan piqué crise nee na bu musaan dem école day daanu crise xanaa yow yaa ko daan daaneel crise école ah nee na moo ko daan piqué crise bu gisee prof yi rek day mere bu gisee prof day mer xam nga ne jinne bi doy na waar parce que prof bi la war a jàngal boo ko gisee nga mere ko loolu mbokk yi dafa doy waar ah day jóge village bi Ndondoori la. mu dem Hunaare. nee na Hamadi Hunaare ñoo ngi nuyu waa Hamadi Hunaare. ci collège bi ñoo ngi nuyu waa collège bi yëpp xam naa ne da ñii seetaan ñoo ngi leen di nuyu. lycée do Amadi Hunaare. ko lycée Amadi Hunaare. lycée Amadi Hunaare ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax. tey nag seen benn élève seen benn mbokk moom Aysata Njaay moom la ñuy génnee jinne ci moom. kon ñoo ngi leen di dem day gis benn jaañ. day gis. benn jaañ. benn. jaañ. jaan. jaan. jaan boobu la. man la wala ah. xaj. Ah, yow da ngay soppaleku nekk jaan. soppaleku wala nekk serpent. Ah. suy dem jàngi mu romb la. daf koy gis. mu tiit ndeysaan ah day fekk yow la. day fekk yow yaay soppaleeku nekk lool. tout le temps rek di doxantu. su ma génnee. waaw ma wax ñoom Kouthia ñu nelaw mais Kouthia moom day day animé rek. comme ngoone. Ah, nee na Kouthia day animé comme ngoone. Kouthia boobu jinne la. kon nag xam ngeen ne moom vingt cinq jinne moo nekkoon ci xale bu jigéen bi vingt cinq yooyu yëpp dañuy daal di génn ñëw nekk ak man fii nee na am na Kouthia am na ay yeneen ak yeneen macha allah. du wax sax profit du wax sax. du wax. profit dañuy poser ay questions xam na mais maa koy tere wax. yaa koy tere wax. depuis euh, seconde. ba léegi day toog rek. mais devoir devoir. waaw dafa day am dix-neuf waaw mu mere ko. nga mere ko beneen duubaar ma wàññi ko mu am 15 wala 14. élèves yi yéen a ngi dégg parce que moom même troisième bu amoon 17 euh, day jooy dama koy bàyyi mu ne liggéeyul moom il faut mu laal a ngi dégg loolu xam ngeen ne kër Thierno Moule Sow TMS TV. ci ngeen di xamee yi ci ngeen di déggee yi xibaar yi ni mel TMS TV kon nag da leen ko koj ci TMS. waaw da leen abone da leen partagé rek su jàngi TMS TV. su jàngi lépp pour mu fàtte ko mais di jàngaat. dégg ngeen loolu. même dafa digir bopp elle est passe tout son temps dañu koy romb rek su ma génnee rek day jàng. boo génnee day jàng. day ñëwaat école sax. du reposé wu. boo génnee ci moom day delluwaat école. du reposé wu sax du nelaw maa koy tere nelaw. yaa koy tere nelaw. guddi yi du nelaw. mais yow am nga ak xam de. du nelaw même su jàngul du nelaw. maa koy tere nelaw. yow ñaata at nga am. man man Abdou Karim. non ah, nekk ah baal ma. nekkatoo Abdou Karim de. waaw. ndeysaan gis nga nee ne na astafurlaa baal ma léegi xam nga ne. mu ngi tudd mag laa mag bu ñàkk fayda la. yow mag bu ñàkk fayda nga. Ah, mag bu ñàkk fayda. mag am na 94 ans. nee na am na ma jàpp xale bii ma bëgg ko takk. nga bëgg ko takk. waaw jàppoon naa yu bari ñoom astu. am na yéen ñeneen ñoo jàppoon. ñu nekk fan. astu. dem na Amérique sax. dem na Amérique. aha ma bàyyi ko jàpp kii. aha ak ak kan. man jàpp naa bari na ñi nga jàpp à peu ñaata personne nga jàpp. bari woon doole la. aha yow élèves yi rek nga bëgg élèves yi rek ngay jàpp aha kon yow daal élèves yi nga élèves yi rek ngay jàpp. 50. kan xale bu jigéen bi. waaw. si 59 personnes. si léegi kon bu ma la génnee xam nga ne ñoom ñëpp da nga leen di bàyyi. waaw bàyyi kii kii laa bëgg man. ci bëggoon xale bi. ku am jom la. aha waaw ku bari kers la. ci. woon sax sigg mais léegi day wax rek. day wax rek. waaw. c'est grave damay jug ma ne bés bi doo wax du wax. du wax même su yaayam waxee du tonto. Hmm. su papam waxee des du tonto. Hmm. waaw moom la nekkoon préféré papam sax. Ah. dindi loolu yépp. est papam ji su jëloon premier wala euh, premier daf koy envoyé mhm. maa ko daj année pro l'année passée. waaw bu mu nekkoon premier bi waaw papam de waxu ko sax félicitation. Hmm. wax lu tax. man la. yow la. wax. papam wax ko sax félicitation. wax. ah yow yaa doxoon diggante ma ak papaam su ko gisee rek day wax. day wax bu ko gis sax. papaam bu ko gis. kan moo waral loolu yow. wax man ak ñeneen. man ak ñeneen. yow ak ñeneen. ñu koy liggéey pour lan. di ko liggéey pour lan. tàggoo ak sagam. pour mu tàggook sagam. waa léegi li ñu bëgg mooy euh, déjà tabax yi toj nga yëpp wala. seen kër baaxuñu de. seen waa kër. lu tax. baaxuñu. lu tax baaxuñu. Hmm. ah. waaw baaxuñu. dafa bari ay noon de. kii dafa bëri ay ko de. incha allah nañ ko jàppale. oui du baax. bëri na ay noon. te yaru naa. yaru na ah. mais bëri na ay ah, na sax ay bu muy def cinquième. dégg nga moom euh, nekkoon na président adduna bi nag noonu la. di gouvernement scolaire moo nekkoon premier fii département bi région bi présidente. kan moom waaw. kon kii ponkal la woon ci jàng bi ah. waaw moo nekkoon président du gouvernement scolaire. ma koy bàyyi rek mu dem. il est intelligent. Ah. waaw et puis la. ah yooyu xëyu jigéen yi dañu def. bëgguñu woon euh, participer ci yooyu mais moom daa ñëw rek yeewu leen. dafa ñëw fan. yeewu xale jigéen yi. waaw mun nañu nekk ay présidente de. waaw période boobu ay góor ñii rekk mhm. mu nekk mu jug rek mu nekk président mhm. waaw kii xam nga lu tax ma jàpp ko su ma ko jàppuwul dina tàkk. day tàkk. waaw. dina triple jaari soo sax. Hmm. waaw. dégg ngeen loolu mbokk dina dem fu sori. dana dem fu sori. waaw. moo tax nga téye ko. waaw kii lumière la day tàkk. day tàkk. waaw <laughs> yàlla def yàlla def na ci moom wërsëg. Hmm. bëri. Hmm. moo tax nga topp ko moo tax aussi mu am ay noon. ah waaw boo amee wërsëg am noonu nag. ku am wërsëg am noonu. loolu moom bàyyi poos la. boo boo bu la yàlla yëkkatee. kii mun na animer Sénégal yëpp loolu c'est normal. waaye nag saa su ne sa noonu seen xol yi dañuy gën a bon rek. léegi yow euh, dama bëgg rapidement affaire yi nga toj jeex na wala jeexul. Ah. jeex na immobile ah. ah? ah. immobile. des na clinique bi ah. boobu moom clinique des na clinique kon même ci biir yaramu xale bi danga nga fa tabaxoon clinique waaw suñu feebaree pour ñu faju ah. bari na ay bagage de bari nga bari na ay biiru maanaam dënnu xale bi dafa tabaxoon clinique clinique bi clinique lan la clinique arena R plus 5 clinique lan pour joueurs yi. pour joueurs yan. ñu tàmmee. yan joueurs mbir yi. mbir yi comme Eumeu Sène am na Eumeu Sène de. ah. waaw foofu lañ koy fajee. Eumeu seen jinne walla jinne la kay. nee na am mbor bu tudd am na jinne bu tudd Eumeu Sène. am na Yékini. am na Yékini. ah daa mën a muñ de. dafa mën a muñ. ñoo ñëpp dañuy dañuy bëre ci biir euh, dënn bi. dañuy ah. kon nag kii sonn naa. du wax kenn. Ah, yéeme na de mbokk yi. c'est grave lii nag moom bu nekkee nit nit ku xamul dara. su déggee yi daf lay jaaxal. macha allah ku léegi léegi yow dama bëgg. waaw nga toj. nga toj kii bi nuñ ko waxati clinique bi nga toj ko tojal ñu clinique bi yaay ma ngi jommi toog de ah rajo yan waaw tojal lépp moom kay booy toj clinique kay euh, morjol lépp moom kay tojal lépp tojal lépp mu gaaw ah. mbokk yi defe naa ne jommi ngeen de ah. jom mi tey moom yaakaar naa ne ñëpp a joomi moo ngi noonu di toj li nga xam ne ne moom mooy clinique bi tey moom yaakaar naa ne lii kenn mosu koo gis kër alaaji Thierno Moule saw macha allah jinne bi ñëw ne am nañ Kouthia Show am nañ yu ah. Ndour maanaam tur li nga xam ne am na ci ay nit rek ñoom tamit jël nañ tur yooyu am ko am li nga xam ne ne mooy arena am clinique am lépp mi ngi noonu tamit di ko toj ñu nekk ay jinne waaw. grand ah. théâtre men na grand théâtre. grand théâtre ñu dégg ngoone lu mu mais lu tax lépp lu am fii am ci dënn xale bi yéen da ngeen ah? am na grand théâtre xanaa xanaa comme ku mel ni ajaratu nday seex moom moo ngi foofu xanaa. <laughs> ñu ngi nuyu suñu jigéen boobu suñu taalibe bi ajaratu nday seex. nee am na grand man de bu ñu nee grand théâtre ajaratu ndey Sall sama xel di dem. am na tapis rouge. ah. tapis rouge waaw waaw kii xam nga lu tax ma def loolu. waaw am na ay am na maamam. waaw bu doon faj lii ay jinne. am na maamam bu doon faj ay jinne. waaw te duñu ko duñu ko fay. te duñ ko fay. waaw waaw moo tax ma jàpp ñu jàpp kii. ñu def coalition benn bokku jinne waaw waaw coalition benn bokku jinne waaw mbokk yi dégg ngeen xale bu jigéen bi maamam dafa doon faj ay jinne te du fayee ko baaxul mbaare demb la tudd. na bu yàgg. naka la tudd. mbaare demb siley. mbaare xam nga ko. daf doon waxal ay jinne rey. dafa doon. rey na ay jinne de. moom. waaw. moom rey na ay jinne. yu mag. moo tax ñu jàpp ma ñu jàpp kii. maamam def doon soigné ay jinne mais du fayeeku. waa am na nit ñoo xamante ne du ñu fay. moo tax. est-ce que loolu baax na di faj ay jinne doo fayeeku. baaxul. ah foo fay fayul baaxul même yow baaxul ci yow. baaxul say doom la ñuy jàpp. parce que doo foog ngay def ay sarax comme kii kii dañu xool famille bi yépp ñu hmm. kii. dégg ngeen. xam nga yaramam bi dafa saf ay sorcières yépp ña ko bugg. sorcière xam nga nag mag ñi dañ koy kii dañ koy lakk. di faj doo fayeeku tamit baaxul. Hmm. parce que foog ngay def ay sarax tamit. nañ waxante dëgg mooy li ma wax rek. parce que boo génnee jinne yi. mais danga leen war a jox ñuy lekk ñuy naan. mais bu dee doo fayeeku baaxul. loolu baaxul. ba mu amee ay. Euh, ñun de dañuy fayeeku wax dëgg yàlla. la yëg ci avion. ah. ba mu amee ay trois mois. waaw. moom ak yaayam ñu jëm Congo. moom ak. yaayam. ñu dem fan. Congo. pont wu. Congo. Congo nekkoon kongo waaw. ah. waaw. est-ce que. waaw continuel. kii dafa judd rek wërsëg papam di ubbeeku. nee dafa judd wërsëg papam bi ubbeeku. waaw yaayam dem Congo. Aha. Wow. Si. C'est grave, hein? si ngeen mbokk yi jinne bi lu muy de lu mu wax fii nii c'est grave ah yéen ñi seetaan TMS TV. garaaw la kon ngoone ba léegi yéen la TMS TV di télé bu mag bi nga xam ni ñu ngi ciy ànd ak le marabout international le xalif général di jinne di Alaaji Thierno Moule Sow alors euh, ñi ñuy seetaan partout dans le monde. mu mu def ci bi. parce que dafa ne dafa dañoo def. coalition coalition sauf. bokku jinne. nga ne da def la. Saalum moo ko laaj. waaw mais jinne yooyu yëpp yan façon jinne ñooy conférence ñooy dem ay kii. xanaa amoo fa ah, tama xooleen fa jàkka wala jumaa bo ci ci ñëw loolu ci baax moom de. am na église. am na église. am na jumaa. nee am na église am na juma. day julli rek. day julli rek. juma. day juma nee na am na benn jinne bu tabaxal ko benn juma. ah na waaye ay tabax ay juma ay ay église. lépp ci dënn ci xolu xale nga ne kii moom doy na waar ne ah. Mm-hmm. tàngoor yi doy na waar. jinne yooyu fan ngeen nekkoon yéen yéen jinne yi fan ngeen nekkoon ba ñëw dugg si xale bi jinne yi doon liggéeyal maamam ngeen wala da ngeen dox daje. maamam. day doon dox rek. yow yaa leen am na benn benn commande di na. mandikat. benn jinne mandi rek. kon ñu gis ngeen euh, macha allah ba ñu si nekk ba garaaw ñu ko dem faj te booy faj dafa am na organisé am na baax dafa am na organisé bu say njaboot mën faj la noonu loolu la laaj xaalis ah duñ laaj xaalis duñ la laaj dara ñu ne dañuy laaj weexal parce que mën a def sarax fajkatu jinne dëgg nag day def ay sarax parce que mënoo yor njabootu jinne ba pare nga ne doo leen defar ay sarax ñun de dañuy laaj addiya vraiment addiya boobu bu ñëwee ñu def ci war a def parce que tamit dégg nga lu wax maamu xale bi dafa doon faj ay jinne gratuit loolu baaxul parce que bu ñu kiiwul mun nañ ñëw sa njaboot delluwaat sa njaboot dellu dellu delluwaat ci yow donte man sax jinne yi yabewuñ ma ba foofu ndax ni may jëflante ak ñoom waaye dafa baax tamit boo yoree ginaar sax nga defal ko pëndeuse boo yoree xar nga jox ko ay ngooñ parce que ñoom tamit vraiment ay bindeef yàlla lañ boo leen teree lu bon na nga leen di jox ah moo ngi mel ne kër gi fii dajale mu te duma leen jox ñu lekk ak naan dama leen di jox lekk ak naan ak dund su ko defee dañuy mën a toog journaliste yi seen xel day dal parfois sax dañuy duñu xalaat wàcc sax parce que seen dara du manqué ak caméraman yi ak waa kër gi mais bu dee da nekk fenn doo lekk doo naan da ngay xalaat uti looy lekk wala nga génn dem lekki rawatina nag jinne nga xamante ne tere nga ko lépp lépp ne ko toogal ah foog nga leen di defal ay sarax loolu moo waral ñuy laajte xaalis addiye yéen ñi ñuy indi ñu leen koy defal xam nga nag am nañ ñi nga xamante ne dañuy wax defarkatu jinne warul laaj dara déedéet man bokkuma ku daanal bato joolaa bi def doon ñëw def foofu ay semaine gàpp ku daanal bato ah, dafa daan ñëw fan ci dënn xale bi. waaw. mais dafa daan ñëw foofu am fa semaine. waaw. année sax année di ñëw dafa sonn dam. boo koy gis ngeen mais ki nga ko gis de fu mu nekk. kooku fii la nekk. waaw. léeg-léeg gën na gis xaama. kooku moom kër Thierno mu lay sonn. mooy direction bi. nee na ki daaneel batal la Joola. Mhm. Ah, ah nee na ak ki daaneel hélicoptère bi. amoon na benn basketteur ak doomam. ma ko taane. waaw waaw mooy basketteur américain. waaw waaw. jàpp naa Guinée boobu fii. waaw jàpp naa leen mooy basketteur américain boobu noonu. waaw waaw. ci àdduna bi ñëw def ko ci. nga nu mu sewee nii. génnee ci moom ëllëg da ngay gis mu kii moo ñëwoon ci Thierno Moule Sow. waaw. gis nga. waaw. lu mu yenu attan. waaw ah, lu yaayam nee du lekk. jinne bi wax na ne du lekk. léegi ñu am dañuy togg di lekk. waaw jinne bi nee na waaw léegi dafa bari léegi mu gaaw jinne. bu gisee liggéey rek day bëgg liggéey. day wàcc bu mu nekkoon collège ndeysaan day wàcc ay 14 heures naat bi tàng yaayam muy togg mu jël togg raxas pare pare demaat école bu guddi yaayam sonn day liggéey waaye mais temps yi maa maa ko tere du liggéey waaw du togg maa ko tere waaw waaw léegi li ñu bëggoon nga génnee leneen lépp après yow yow sa bopp ngeen daal di génn benn yoon lu mu gën a gaaw macha allah waaw. l'année passée sax l'année passée. waaw waaw. leur chambre a pris du feu te man la. chambre. Hmm? Ah, waaw. lan moo tàkk. chambre waaw. néegam dafa tàkk waaw yaayam nee na néegam dafa tàkk dara des euh, composition yi euh, def ay ay benn semaine ba tàkk néeg bi pour kay tàkk yépp mais terewul mu nekk première te jàngul sax mais yëpp dañ ko soxor la ne dafa bàyyi ba ko jël première lépp la yow yaa ko waaw moo ko taale man la moo ko taale ay timis yooyu rek après daf doon jàng waaw waaw nga def naan daf doon jàng après nga def naan day réviser espagnol la doon réviser espagnol waaw jël ay kayit depuis trois heures ñuy réviser après mu génn yaayam nee na daf doon dem jama aljuma la asuma pour wirdu moom du génn néeg bi yaayam nee ko génnal la jot na baaxul ay demoo yi dañuy dox rek heure yi yaayam génn ko néeg bi rek benn rakkam ngi ñëw Thierno Habib moom moo gis foo bi foog na ñuy def dox rek di tàkk. boobu yow yaa taal seen. noo ko taale. noo kii laa yónni kii. kii laa yónni. kan beneen jind bi. kii beneen jind bi suy wax rek. lii day gédd ay foofu moom dafa taal ma ci moom nga yónni nga ne ko ne dafa toog yónni kenn ne nga ne ko ne dem taal la nekk kooku moo takk yëpp mooy marché yi marché Kaolack bi moo taal marché Kaolack. maa marché tàkk rek. ñu ngi nuyu waa bu leen jaaxle jinne mooy taal marché bi. ak fii Dakar sax taal naa fi. Ah? bu mag bi maa ko taal. dégg naa sax dañu koy travaux yi dégg naa ministre yi di wax dañu koy tàmmuwaat commencé defaraat marché boobu waaw. Oh. am na jinne sapeur pompier. waaw am na jinne man jàppoon naa benn jinne sapeur waaw waaw. moom moom lan lay def. Ah. sukki day ñëw des fois ah? des fois. mu ñëw damay tàq. des fois taal foofu. waaw. waaw. garaaw naa de. lor naa kii de. ah kii. lor naa ko de. suma baalu. su baax. waaw waaw. kii naa oto yu bari. mu ne. oto yu bari baa ko daana. oto yu bari yaa ko daane. waaw. nooy daane la oto yi. waaw waaw. surtout route Linguère bi. ah tali Linguère. waaw waaw. foofu day bëri accident. des dem foofu rek di doxantu. su ma gisee chauffeur yu tapet rek def nii oto bi ma indi foofu. Hmm. tali Linguère bi sax mu ne ay accident yi. Ah. waaw ah yow yaay nekk si tali Linguère bi. waaw oh, des rek. dafa garaaw la. kii moom am tool. daa dem na 105. 105. 105 oto. waaw. caa 105 oto. mbaar nañu faatu ci oto yi wala. waaw. ah. waaw waaw. nee na 105 oto daaneel la leen. waaw waaw 98. déedéet. 80. 18. personne waaw. nee na quatre-vingt-dix-huit personnes. sénégalais damaa bari doole de. ku ma romb rek mu jaar. ku la romb. su ma rombee rek mu daanu surtout école yooyu damay romb des fois rek yenn élèves di daanu. yenn élèves di daanu. waaw. ngelaw bii rek sama ngelaw. sa ngelaw rek. waaw romb élèves yi rek ñu daanu. waaw. même yenn yi diine bi dafa garaaw dafa bëri doole kay waaye nag Cerno moo leen ëpp doole te bëri na ay jinne ñu topp de ah ñu ngi fii suba génnee rek ñoo ngi rax ñoo ngi rax de ñoom ñoo ngi rax rax na ñu def soo génnee nee na suba génnee di ñu ñëw ñoom ñoom dañuy génn waaw suba génnee nee na hmm. dinañu ñëw xale bi dafa neex ah xale bi dafa neex. mu ne. xale bi dafa sab sab dafa jot dafa. xale bi dafa saf. dina bi wala kaana la mbokk yi gis ngeen torool xal na xale bu jigéen bi yàqal na ko yàqal na abo niiram macha allah lu muy wax. kon nag dèjà moom nu fexe mu génn wax na fi wax yi am solo lu mu fi wax yëpp am na njëriñ ñi ñi ñoom di jàng bu baax a baax di ci yeewu. ku fa doon génte. ah. kan moo doon génte. santeur bi santeur bi. ban santeur. déedéet chanteuse bi. chanteuse bi ban chanteuse. ban chanteuse. ban chanteuse moo fa doon génte. déedéet loolu lañ koy laaj. mag la. mag. chanteur bu mag. góor la wala jigéen woykat bu mat boobu góor la wala jigéen ah ay comme boobu le grand artiste sénégalo-américain ak Viviane ñu am ñaari seex hmm? maanaam jinne ngay wax wala kon jinne ak Viviane jinne bu may expliquer ne pour ñuy seetaan ñu comprendre. ñu comprendre ne tur yooyu ñu wax ay tur jinne lañu nationalité yooyu yëpp waaw ñoom lañ seen bopp léegi léegi jinne personnalité rek la hmm, personnalité ñoom rek nga ñoom nga defal coalition ah waaw nga defal coalition kon nag jinne yàlla léegi nag kon jinne dèjà kon mu génn ci xale bu jigéen bi benn yoon mu daal di génnee lépp mu gaaw gis nga boobu ba tey war nañ ci am léegi trois heures de temps quatre heures de temps ci faj bi ñaar ah mu gaaw mu gaaw mbokk yi vous avez vu ah mu fen jinne bi nag ne su ko ñu bon ko di di boor kay bon na yi ne baa ngi léemu di wax ay munkar yi ne baa ngi làkk ay affaire mu ngi wax ay daf eh, mu ngi jadde eyi ɗum ko pour hon ɗum ha ha yinde ko garawla si jinne bu garaaw la. mu doon daaneel bato Joola bi. waaw maa ngi doon foofu du ree. yaa ngi doon yaa ngi nekkoon foofu du ree ba ñu doon daaneel bato de Joola kii jinne bu garaaw la jinne bu doy waar c'est grave nee na nag xaaxaa xaritam la nee na kenn ko gis xaaxaa ñi fi. sama doomu ndey la. sa doomu ndey la. waaw. dinaa ko gis. fi la ne. nee na gën na gis waa xaaxaa xaaxaa ngi ci ci ah. gis nga ne ndeysaan moo tax jinne bu ma téye su fekkee day nekk ci man nee na gën na ko gis léegi yow say li nga maanaam dëkk bi nga tabaxoon ci xale bi jeex na wala jeexul dëkk bi jeex na wala jeexul ah. poto lamp yi dindi ko. guddul ko nga am na la téléphone aha dindi lépp lépp loo defoon ci xale bi dindi ko jomme ngeen de jomme jomme xale sax moom dafa jomme sax nag ndax bi kat aduna la def ci ci xale bi ah c'est grave donc yéen a ngi seetaan TMS TV télé bu làmboom njëriñ euh, macha allah télé bu feeñee lu bu làmboom njëriñ xam ngeen lii TMS rek ngeen koy amee ah dina mu gaaw. ñeneen ñii la ma def ne dama lay rey fi mu mujjee ak moom xam-xam rek mu wóor poto lampe ngay génne ah? xale bi dafa bari hmm? xam nga ne xale bi bu ñëwuloon fii wallaahi bu baax. xale boo xam ne kat mënoon na nekk meilleur élève. waaw nee na jaari sow sa xale bee ko su dàq ko jàng kon nag jinne yi ñoom xam nañ ne chaque jour wërsëgu doomu aadama la ñuy topp gis nga ñu ko def ci yaramu xale bi yëpp ay potalam kër lépp. waaye kii dëkk la ko def dëkk la ko def sapp ko aéroport sax bàyyi ko grand théâtre lépp loo xam ne doomu aadama yi am nañ def na ko ci biiru xale léegi def nañ ci liggéey bu rafet maanaam doomu lépp lu muy dund ci kaw suuf jinne tamit da dund ci kaw suuf loolu la ñu bëri xamuñu ñun nu ñu nekkee nii di ko dund ñoom dañuy dundee noonu seen biir doomu aadama yi nag dañ doon gis jinne waaye doomu aadama yi bu ñu amee xew jinne yi dañuy xew bu ñuy ngénte bu si jotee dañuy tabax si jinne yi dañuy tabax si bu ceet amee bu événement amee football nawetaan jinne yi tamit et cetera ñoom dañuy def maanaam yàlla dafa bind jinne ak doomu aadama pour ñu jaamu jinne yi dañuy dund comme ñun dañuy seetaan télé maanaam daal boo xoolee doomu aadama lépp lu muy dund ñoome dañuy dund lu mel noonu waaye fii rek nga ko mën a xamee kër Thierno Moulay Sow kër xalif jinne fii ngay mën a xamee lépp ndax télé bi dafa nekk télé exemple dafa nekk télé bi nga xamante ne day day yeete day jàppale day dimbali mooy TMS TV léegi nag moo ngi moo ngi ci oto ambulance yi ba léegi léegi ma ne ma ne léegi affaire yi jeex na wala jeexu ah mbokk yi yëpp ci xale bi jigéen bi la nekkoon moo tax moo ngi jeex xiiboon du lekk du naan sewut la def jeex chaque jour day am problème mu dënd lépp lañ ko tabaxee fii lépp dëkk dëkk lañ tabax fa lii c'est vrai lu garaaw la ndax nag ñoom seen baatin mën na def lu ne ah mu ne waaw yaa yàq dafa am problème bët ah soxna si nee yaayam ne day sol ay verre ay miyop ah bët yi lu tax nga yàq si gil wax ak man jinne baa ngi sujjóot sama kanam xam nga ne seen maam lii la bañaloon maam aadama gis nga ko moom ngi sama kanam parce que fu mujjee ak man maamam lii la bañaloon maam aadama gis ngeen lii yàlla rek moo ko mën ak yonente bi salaa salaam kon nag ñoo ngi sant suñu borom jinne baa ngi sujjóot ci suuf daan xalif général day jinne le king of the king le roi médecine traditionnel du monde le roi des djinns mbokk yi defe naa ne lu ne fang kenn du ko jeex mm. defe naa ne yéen a ngi gis yéen a ngi seetaan jinne bi sigil ah, ah? mu ne po waaw po ila suba da nga am da nga tabax si nee na comme ah. waaw. kan. kan. kan moo def loolu. dama tabax ay pont ay pont la ñu tabax ci xale bi. caa pont bi tojal pont bi mu gaaw nee na pont bi comme Ila Touba. kon daal. mbokk yi gis nañu ne ñoom ñoo